inspiré côté boobu parce que booy ñaari côté lañ nekkee ñaari côté lañ nekkee benn côté bi fi lañ taalee oto bi oto bi sànq gis geen ko ci image yi ak benn moto moto yooyu mel na luy yàpp bagage moom lañ taal foofu noonu ak ak ak benn oto. policiers yi avancé nañ policiers yi am li saf na projet bi mooy noonu di avancer moom itam saa yi tourné na jaar di jógee demaat si côté bi mu jógee woon mu mel na dañuy dañuy dañuy kari booy yi parce que booy si côté boobu mu jëm booy foofu lañ génne woon sànq saa yi fii benn oto bu lende bi rek moo fi taxaw. beneen oto bi avancé na ba ba fi booy yi njëkkoon a taxaw mu taxaw beneen bi foog na waat dem mel ni luy kaali booy yi dafa mel ne booy dañoo dañoo àndiwaat dafa mel ne booy affaire yi daf leen a sonal ñu reculer. avancé. nee na nga yem fii nga bëgg avancé. on a quelques affrontements ici entre quelques jeunes et les forces de l'ordre. Vraiment, le mouvement de l'intervention du Reste vraiment voilà gis nga policier bi mu ngi koy woo mel na def naan ko ah, jeex na booy booy reculer nañ voilà fi ñu nekk nii nag xaw nañ sori xaw nañ sori domicile lu Ousmane Sonko tuuti parce que foofu noonu depuis suba ba léegi eh, certainement bi booy commencé woon nañ daal mais benn instant dañoo dañoo dañoo arrêté waatoon te nemmeeku wuñ fa takk der nag ñëwuñ fa nemmeeku wuñ fa daal benn benn manifestation si ni ko mën a waxee mais nag. sànq bi nga xamante ne si eh, kii bi dafa génn mooy dañoo neen dañoo renvoyé projet bi ba le 23 booy dañoo ñëw ba côté bi nga xamante ne si fi la seen camp kii police bi nekk fi la police bi nekk ñu daal fi taal benn oto daal fi taal tamit beneen beneen moto moto yooyu di nga xamante ne si eh, day yàpp ay ay bagages booy daal ko fi taal looloo waral police yi daal di génn booy tamit daal di woo renfort ñi nga xamante ne si ñoo nekkoon si domicile Ousmane Sonko dégg loolu daw ñëw. ñuy sànni xeer ñi nga xamante ne ñoo di policiers yi gis nga booy ñu ngi nële taxaw ñu ngi taxaw si kanam ak kanam mais sànneetuñ xeer defuñ dara dafa mel ne euh, dafa mel ne affaire yi daf leen a commencé dugg yi daf leen a commencé dugg loola booy reculer parce que boo xoolee policiers yi fi ñu nekkoon dañoo avancé de trop dañoo avancé de trop ñoo ngi noonu di continuer di taal li nga xamante ne moo di lacrymogène yi ñoo ngi taal lacrymogène mais booy yi fii lañ taxawoon seen kanam di sànnante ñoom xeer di leen di leen di leen saagaay tamit mais euh, policiers yi bi ñu woowee renfort ñu daal leen di kaal si yeneen ñaari côté yëpp parce que oto bi mu ñëwee dafa mel ne lu tourné wu mel ne lu wëri booy ci la booy daal di gën a reculé wu ba tax police yi ñoom tam ñu gën a avancé wu gën a avancé wu daal di dox jëm jëm si jëm si booy yi daal fii comme ni ngeen gisee si image yi fii bi kese moo des parce que booy dañoo reculer de trop dañoo gën dañoo gën a reculer booy dañoo gën a reculer dañoo foncé wuti leen. comme ni ñoom booy ñu ngi ne la jàkkaarloo ñoom. voilà dañoo gën a taal parce que voilà ñu ngi nële jàkkaarloog dinañ ngi saxaar si ñu ngi nële en face ak ñi nga xamante ñoo di de l'ordre yi dinañ gis ñu taxaw ku ne yaa ngi taxaw di xool taxaw jàkkaarloo ak sa morom. xamante ne euh, jot nañ dégg information yi selon le renvoi du procès de Ousmane Sonko Adji Sarr jamono ji nag ca Ziguinchor dafa mel ni euh, am comme ni ngeen ko gisee ci image yi ah, ah, mu nekk mbir mu doy waar su nekkee am na ku nekk ci ligne bi itam régie mën nga leen a ubbil ah, ñi nga xamante ne bëgg nañ bokk ci waxtaan bi mën ngeen participer en appelant au 77 810 90 90 salaamaaleykum maaleykum waaw dama bëggoon a participer ci émission bi baax. ayca bismillah. waaw maa ngi États-Unis. Mhm, naka waa États-Unis. mais affaire yi vraiment man sama xol neexul. maa ngi mhm. États-Unis mais sama xel yëpp a ngi Sénégal. masa masa waay. mais avec avec liñ bëggee Kër Sonko. Mhm. non dafa dafa neexul sa xol ga. dafa neexul sa xol. aywa mënu ma wax ko. masa masa masa masa non non quand même quand même quand même sëñ bi euh, sëñ bi nga vraiment on comprend l'émotion ndeysaan mhm. suma àdduna étage bi fa la bëgg toog mhm. nga football bi jot bëgg def doon jàpp mhm, des années vraiment des années nga topp doon jàpp imagine lii ku ko defoon Aliou Sall waaw ngeen baal ma quoi ngeen baal ma. nañ la. Euh, di jégalu vraiment pour ñi nga xamante ne aussi ñoo ñuy seetaan ndax amu ñoo xamante ne quoi qu'on puisse dire euh, l' émotion elle est elle ndax nit ku ci nekk ak fi la yëf yi fi ñu toll euh, ci jamono ji may wax génn yéen nag selon les chiffres officiels ñetti nit jot nañ ñàkk seen bakkan benn xale bu am bu war a am ay fukki at ak ñaax ca Kër Mbay Fall ak ñaari nit si gi coor ne nañu ab waaju góor yu nga xamante ne jamono ji nag kenn identifié ko ak benn policier bi nga xam xamante ne woto police moo jaar ci kawam li lee mooy bilan chef officiel yi nga xamante ne ñoo jot am ci ay nit yu jot a ñàkk seen bakkan ni ki démb ca manifeste yi nag naka may jamono ji may wax ak yéen nag mbir maa ngi wëy ndax ni sànq ci bu Ndakaaru ah, jot nañu renvoyé li nga xamante ne moo di à bi ba ñaar fukki fan ak ñett eh, mu di bés bi nga xamante ne moom lañ nar a àttewalee fii ca Ziguinchor gis nañ sondage bi nga xamante ne moom lañ créé suuf pour laaj ñi nga xamante ne ñuy seetaan ndax gëm nañ ne Ousmane Sonko dañ ko teg loxo wala waaleykum. sëñ bi ngeen def. ñoo leen di ziar. foo ñu maa ngi wootee dama ko leb rek. <laughs> waaw amul problème lebal nañ la ko. <laughs> Euh, dama du ma seetaan télé. Mhm. déglu rajo. Mhm. mais yéen bu ma yor seen numéro wallaay xaw ma sax lu ngeen di débat. Mhm. mais débat tay bi ñëpp kenn du ko laajte. soo ne ma woon animation laay def tay musique ma fay sama téléphone supprimer sa numéro. banaa déglu rajo Sénégal. ñun mhm. tàkk di jaxasoo. Mhm. ñu animé seen i ak seen i rajo. ndeysaan. kenn xam su loolu lan nekk ñu seen seen seen rakk ñun. di mhm. la ay bind sigaat ay ñoom ñëpp di nekk seen di déglu seen seen i musique. di maye seen i ilikaas. ndeysaan. di tudd ay kilifa bii la ay politiciens. mel ni dana xew ci dëkk bi. di laaj wala ak yi ñëpp dara xew. ndeysaan. barke yonent yàlla Muhammad ngay jàpp ngay jàpp tey télé. Mhm. ñii wane ay France ay feneen ak feneen. Mhm. bàyyi seen réew bi di Sénégal. Mhm. lu xew loo boo ko yëg si réseau yi ngi dee. réew maa ngi jaxasoo. ñaanu ñu ndimbal nag ñun seen i yi seen rak seen i doom. ñaanu ñu ndimbal de. Sonko moo sama toomaa. moo sama turandoo moom la ma tuddee. teguma ko bët teguma bët Ousmane yéen mu am fànn ma tuddee. mais mhm. man jël sa chéri moom jox ko Ousmane Sonko mi moo sama tur ba àdduna ak àllaaxira mhm. fu mu dugg bëgg naa xam nga ji nañ ko viol. Mhm. jeunes yi nag bëgg na ñu ne dañ ñu ne day day fen ñu ne ñu bëgg nañ. ñu ne noonu la ñu ne ñu bëgg nañ. ñu ni nit aala ñu ne ñun bëgg nañ léegi ñu ne dëmb la dëmb bi la ñuy wuutee dëmb bi ñu bëgg nañ mu jiituñ suñ réew mi ñoo ko moom suñ ko moom chaque jour lu d lu dama lay commencé tey ba Sonko amee bés bi ba léegi nii laa lay tegal par benn benn ah déet est-ce que temps temps dinañ ko may tamit temps may may war ak ma ma si tuuti rek ah Mm-hmm. du ko mat sax. Mm-hmm. lu leer nañ laa lay wax lu tey fu leer man politique lay laaj xaw ma football football bu ñu mën saisir ma ñetti jeu man. Mm-hmm. sama yoon nekkul si diw diw diw diw diw li jëntu ma leen làmb li leen. man politique lay topp. ndax tooma am nga am lu xew. ñu ne Sonko pourquoi euh, bu dee bu dee mu egg si enragé wu leen étranger bu ñu la. bu ne woon tey day jógee bi ñu naan ñëw suñu Sénégal tey fii nii. Uh-huh. dañ koy téye heure maa la wax nii yàlla xam ne loolu benn affaire la ñu taxaw ma koy wax sénégalais yëpp nag ñu xam. Uh-huh. bu ñuy jël décision pour ray ko. ah déet waaye sëñ bi tamit bu wax loolu. wallaahi en jour boobu yàlla bu ma fekkee suba tey ba pare ñoo mottu génn réew mi bàyyi ñu ñu jooy ko ñaari fan ñu fàtte ko mais duñu leen ko may. Macky Sall nañu xam ne suñu réew doyoon na sëkk doyoon na ngir yàlla te yàlla tax. d'accord jërëjëf ñu ñaan ngir yàlla doyoon nañu. merci merci jaajëf. ah combat à continuer dënnu bi leen bëgg jërëjëf. merci merci. merci di ko di ko jaajëfal bu baax baax ah, di xaar keneen ci ne mën ngeen caa woote ngir bokk en direct ah, ci waxtaan wi gis ngeen sànq image am jamono ji ci Ziguinchor ah, dafa mel ni yaa ngi yënguwaat vraiment depuis ziar nag foofa dëkk ba daanaka fa la fa la événement yu bari di di di xewee ñaari nit jot a ñàkk seen bakkan foofu noonu ca Ziguinchor kenn ki di Asimou Ba nekk ab police policier keneen ki di ne ab ndaw bi nga xamante ne euh, nee nañ moom ñàkk na bakkanam waaye kenn xamul naka la selon communiqué bi nga xamante ne ministère de l'intérieur moom la jot a def salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. mbaa leen ci jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax foo ñu woowee. maa leen di woowee région Matam hmm? maa leen di woowee région wax Terre Sept. naka waa Matam. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ay ci bismillah ci waxtaan wi. Eh, man de waxtaan du eh, bëri. Mhm. ndax eh, li nga xew bi lépp def nañ ko lépp. Mhm. Mhm. yaakaar naa si Sénégal dafa suuf aadama. Ah. doomu bi nga la bokk. nit ki donte dafa dafa doon ndax projet yàgg na fee am. effectivement. viol yàgg na fee am. Mhm. dama yaakaar nit ki viol ci ñaari citoyen sénégalais. Mhm. war nañ mun a bàyyi ku nekk wuy ji tribunal ci fekk du am benn problème. Mhm. kon nag bu fekkee ne convoqué nañ ko ba problème am. war nañ mën a mhm. xoolaat suñu bopp xoolaat suñu gis. xoolaat suñu bopp baax a baax a baax a baax réew mi réewum diine la. Mhm. réewum jullit la nañu raxas xol yi ñu xam ne ñu ñëpp yàlla moo ñu tàkk. Mhm. ku si nekk sa bés bu nekk da nga wuyu ku si nekk li nga liggéey moom ngay moom yàlla delloo ko xelam xam ne nguur gi yàllaa ko joxoon mhm. ñun ñoo taxawoon xeexal ko wooteel ko Sonko mhm. bu dee dëmm wala dookoor wala wala fenkat ñu bëgg nañ mhm. kon na teg projet diine teg ko su yoon ñu àttee fu bëgg fuute ñu xool mais lii dafa ñaaw doomu askan Sénégal yi di si dee policiers yi di si Mhm. am na li nga xam ne da koo jarut ñaaw na trop. Mhm. ku ci nekk sa famille ku ci nekkoon du la neex bu sa doom nekkoon am na ay nga nekk sa si mbedd bi vraiment dafa ñaaw ñun nag rafetlu ko pour ñu si dara nag waaye dañ koy bàyyi lépp loxo yàlla. li mhm. ñu bàyyi lépp loxo yàlla dénkaat Sonko yàlla. yàlla mi mën aar yàlla ko aar guddi aar ko bëccëg. aar ko fu ne. amiin amiin. lu waree doon président réewu Sénégal te mu jublu yal na ko yàlla def. amiin amiin. bu naata doon président Sénégal te mu jub yal na ko yàlla def. amiin amiin. kon am na li nga xam ne dañ ko doon def yàlla ci xel xel ñun ñëpp di rafetlu ñu ko ñaan trop. d'accord d'accord merci merci. di ñàkk Sénégal ñàkk yu bëri na dafa bëri. maa ngi jégalu nag bu baax a baax a baax a baax. merci merci merci merci merci. amul problème léegi naa la ziar naa la baax. di ak di la ziar vraiment di la ñaanal jàmm. di la ñaanal jàmm ñu bu baax a baax a baax. amiin amiin baax taxawaay rafet. amiin merci ñëpp ku bokk. amiin ndax mu leen mu leen ñëpp toll na mbaay xam. ndax am na dëkk yoo xam ne dëkk Dakar lépp ci a mm-hmm. merci merci may leen wér ak kattan. musal ci seytaan yi muy di sàkk sa fay. amiin amiin ñu mbokk amiin. nuyu naa leen baax yu am ñu lay jaajëfal vraiment di rafetlu kàddu yi am na solo ah, am na solo itam da ci baax itam ci waxtu ñi solo rek di ñaanaat vraiment ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel di yëkkati kàddu yu rafet ndax euh, Sénégal comme on a l'habitude de le dire benn bopp la kenn mënuñ ko xaar ñaar géej ngeen sànq góor gi nga xamante ne moom États-Unis la dëkk woote ndeysaan bay tuur ay xéewal ndax euh, euh, gis xam na ne njabootam moo nekk Sénégal te lépp li nga xamante ne moo fi xewee ay njabootam ñoo ci daal di loru donc loolu itam war nañ ko mën a seet bu baax a baax di bàyyi xel vraiment surtout ci ñi nga xamante ne ñoo ngi jamono ji sur le terrain def seen liggéey wala sax nekk euh, ci manifester yi rek ñu ànd ak dal waaye itam euh, jéem a rek daal di moytu fitna gu euh, bari salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ngeen def. sant yàlla bu baax. fa ñu woowee. maa ngi wuro. wuro Sogi. maa ngi wuro Sogi. naka waa wuro Sogi. ñëpp Euh, nan ngeen di jàngatee euh, jamono ji li nga xamante ni moo xew euh, ci dëkk bi ñu ne procès moo ko daal di waral maanaam àtte ci kanamu yoon. waaw xam nga bi ma sant yàlla subhaana wa mhm. mhm. ndax lu tax. lu tax. bu ñu demee ba nga xamante ne. nit ki wóorul si siis mais ni ñu xool lan waral loolu. Mhm. parce que yaakaar naa ki nga xamante moo nekkoon moo war a nekk garant sénégalais yi ak sénégalaises yi. Mhm. dem nañ ba amul ci yow confiance xool lan lu ko war mhm. te Macky Sall mu delloo xel ci boppam. mu xam ne yàlla suñu borom mooy dogal loolu. moom nguur gi bi mu ciy jot jotee mhm. ci nii te wax dëgg yàlla ku dee ak sa bàmmeel ñëpp xam ne lan moo xew mhm. dañu ñaan nag subhaanahu wa taala yal nañu yàlla defal jàmm suñu réew mi mhm. mais ñëpp xam nañu li xew ku ci wax ku ci waxul xam nga waaye yàlla suñu borom ba wax ci alquran alaysa allahu bi aakimil aakimin uh-huh. aaya bu ko dóobu rek ci laaye ne ba ñi nga xamante ñooy àtte wasalaamu uh-huh. aleykum wa rahmatullah wa barakatuh merci merci merci di ko jaajëfal mbokk moom doon woote depuis Wuro Sogi ah, di nuyu askan ñëpp waaye itam comme ni ma ko waxaatee waxee woon sànq rek ah, di delloo si waat xel yi ñi nga xamante ne vraiment jamono ji ñoo ngi ci mbedd mi di wane seen ñàkk ànd ci li ci réew mi vraiment. Ah, allo salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw sëñ ñu ngi lay ziar baax. dana ziar bu wér fa ñu woowee. lay wootee Tali Abdou Diallo. Abdou Diallo def. seen liggéey macha allah. merci merci ñoo ko bokk. vraiment seen liggéey yéen a xew Sénégal mhm. waaye gars yi nañ delloo seen bopp seen delloo seen xam ne Sénégal ñu ko bokk. Mhm. nañu xam ne képp ku ci dee da ngaa perte da ngay perte rek. Mhm. ndax doo doomi doomi Macky Sall du ci doomi Ousmane Sonko du ci te problème bi ñaari Sénégal ñoo muy Adji Sarr ak Ousmane Sonko yoonu président ñëw ci. kon bu déggee Ousmane Sonko kon xam ne Adji am na ndam képp ku dugg dangaa war a wax ne ay jërëjëf Adji Sarr ak Adji képp ko mu sax képp ko mu sax lu bon moo mu dëgg Ousmane Sonko xam na ne bu demee dugg parce bi vidéo yi gars yi moom lépp a ngi leer parce que bu amoon lu leer day dem parce que moo tax mu de mu jël nag ay doomi jàmbur bëgg leen a raylu doomam déewul kon nag kon na Sénégal yi xoolal seen bopp ku dee da ngay perte rek dee sawar na jëm ndax parce que kii fa mu dem riba la demoon parce que foofu ku fa dem xam ne diine bëgg ko l'islam bëgg ko kenn bëgg ko mu dem fa dem fa bi yàlla doomi jaam ban fa rek bopp leen kon na Sénégal delloo seen xam ne justice dina fi liggéeyam te bul àttewul bii mën nañoo ubbi prison yëpp te xam ne Sénégal moom lu neex waaye defal kon Sénégal ne am seen xel nañ bàyyi wax yi naa fekk yi Ousmane Sonko bu demee Adji Sarr taw ci baar bi ñoom ñaar ay Sarr bu génnewul lu leer boobaa Sénégal yëpp nañ mën a génn daal ni la mais moom demul ba pare Sénégal yi taxaw naan ay di wax ay waxi naa fekk nga xam ni te ñoom ñëpp xam na ne Ousmane Sonko dem na foofu kon xam na ne Ousmane Sonko ñam na ndaw si nan ma dëgg rek te yàlla rek ku nekk sa bàmmeel mu ñam doomi jàmb doomi jàmb ko rek bant yéen génn ni ay jullit leen di jëlaay aay di ko di ko fabriqué maa ngi ne fan la Sénégal jëm. lan wax nga dëgg Ousmane Sonko képp koy woote di wax dëgg da nga ko wax ko bëgg ko wax bëgg ko wax dëgg da ko naan mu dem wuy ji mu dem wuy ji yoon moom moo di wax dafa yàkkamte kii bi lu ma waxoon mu ne demul ma de moo am moom nekku si yoon mais Sénégal yi dofuñu gën a jàppuñu ku ñi dof nag xam ne ay dañoo lekk soom xaj wala nu nekk naan soom mbaam parce que buñ continué da ngay perte mais ñi conscient ànd seen xel war nañoo yow ni xam ne benn politicien jël ngay dem di xaru parce booy booy booy xeex da ngay xeex ci wàllu liggéey nangoo dimbal sa ndey wala nangoo dimbal sa may di xeex ay ñu xam jëruñu ko ay simple violeur ay simple vingt-quatre kon ba dégg Casamance bi dem pour affaire affaire rébellion la bëgg a def. Mhm. parce que gisee boo fa gisee affaire rébellion rek moo fa man waa fekk Sénégal ñu noo bokkee mun koo xam ñaar. d' merci. ñu bëri nañu wat naa ay Sénégal dafa def dafa def dafa gis nga dëgg moo njëkk te mooy mujj. Mhm, merci merci ñii di wax ñëpp di ci na ni xam na Ousmane Sonko moo nekk moo ne wutu yoon. Mhm. kon Adji Sarr képp ku dugg war nga ko merci beaucoup Adji Sarr ñeneen ñi war nañ koo baal waax ku ci dee sawar a jëm te réew na bu dee dee tàkk ci ay fen kon na na tàkk ndax lii ay fen la parce que il faut il faut ñuy ñëw ñu leeral lépp. Sénégal yi leer ñi dee ñi dee mën a tàlli uh-huh. mais Ousmane Sonko moo tax kanam personne dee tey lu wax bari ñëwul nan wax dëgg ba bañ taw rek taw na ay Macky Sall lan moo ci yor Macky Sall Macky Sall ma nga fële Macky Sall ma ngay liggéey liggéeyam Sénégal nga jëm kanam te te te li ñu wax li ñu yàq lii ñu yàq lépp. Uh-huh. ñun noo koy fay de mooy facture courant yi di ñëw ci lañ koy yokk facture ndox yi ñëw ci lañ koy yokk mooy même bu doon fukki dërëm fukki wala courant kon li ci waay yàq ñun noo koy fay de lu et ku mën a yàq dama yàq sa kër baay mais yàqul seen kër baay parce que ay waraakaane bon lan moo def nii waaw jërëjëf waay maa ngi leen di siyaar baax def seen liggéey. merci di ko jaajëfal bu baax a baax euh, moom mi nag euh, woote daal di joxe xalaatam euh, ci ci mbir mi Mansour Mansour Gueye maa ngi lay jaajëfal rus nga ma ci Mansour Mansour merci waaye rus nga ma ci dégg naa gis naa commentaire bi <laughs> ah di di di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne vraiment ñu ngi wéy di ñu topp Camara Kumba Kone jaajëfal Mamadou Lamine Mbodj Pape Pape Pape maa ngi lay nuyu ah, Zahra Ba Amadou Moustapha Amindour ah, maestro eh, Fallou Ngom Seynabou Mbengue ah, ak ñëpp ñi nga xamante ne dafa del fàttewu ma ma leen leen di ñëpp ñëpp leen di suivre waxtaan bi ñu ngi leen di jaajëfal image bi gis nag te si coow nga daal di amee eh, ginnaaw eh, démb nag tey daanaka xëyaat nañ ko waaye nag comme ni ngeen ko gisee noonu rek espérons que vraiment jéyee bañ caa am salaamaaleykum maaleykum salaam. bi rajo bu nekk wala télé bu nekk sa wet ngir dégg-dégg bi gën a yaa ngi en direct ñoo ngi xaar ba ba léegi ban réaction ngay def par rapport ak li nga xamante ni moo xew jamono ji ci biir réew mi. waaw am lu ñu rek. Mm-hmm. di ko métti lu baax a baax a baax te xam ne si lu jiit njaag euh, waa góor gi ñoom ñoo njaag te tey yaakaar naa ñoom bu fekkee dañ ni ñoom dañoo bëgg Sénégal jàmmi réew mi ñor leen li ñuy xeex réew mi tax mu koy xeex kon lii ñuy def nii war nañ ko mën a fekk suuf ndax yow dooni da nga bëgg Sénégal nga gis Sénégal booy yi di yàq ci taal li nga liggéeyoo a ko si néew uh-huh. ñu koy yàqu ba pare uh-huh. nga ni bëgg nga Sénégal ngay seetaan loolu quoi bu fekkee yow sa intérêt bopp nag moo la ñor da ngay bàyyi ñu yàqu quoi mais bu dee Sénégal moo la ñor da li ngay def Sénégal moo tax war nañoo mën a tëj lépp foofu quoi uh-huh. Ousmane Sonko dañ ba pare ba koo néewal doole li ñuy def nii politique boo ko la rek mais du dëgg man nag booy yi nga xam ni si dañuy yàq li ñuy yàq suñu alal la loolu Macky Sall moomu ko siis bi moomu ko ñun ñoo ko moom quoi bu ma sañoon moom loolu ñuy taal duñ ko taal quoi uh-huh. waaw fekkee mer nañ ba mer ba am luñ bëgg a yàq nañ dem kër ministre yi ñi nga xam ne si ñooy contre Sonko wala ñu koy tuumaal di ko taxal wala siis yi nga xam ne dañuy aate lu dul yoon ñoom liñ moom nañ ko quoi. ah déet bi tamit ah non loolu moom loolu moom ànduma ci vraiment vraiment il ne faut pas que ñu utiliser l'antenne pour ndaw ñi ci ci ci yenn yi vraiment on peut peut-être conscientiser on peut donner son message mais pas appeler des gens pour ñu dem yàq alalu nit wala yàq lii vraiment loolu moom ànduma ci te maa ngi képp koo xamante ne vraiment da ngaa woote rek kàddu yu ni mel vraiment nga bañ ko nga bañ ko yëkkati. waaw d'accord. ndax ñi seetaan voilà ndax ñi seetaan vraiment influence bi dafa gaaw influence bi xam naa xam naa fi ngay waxee tam mhm, mhm. mais dama bëgg a xamal ndaw ñi ñu yàq rek li ñu yàq ñun suñu àll la ñun ñoo ko moom quoi Macky Sall mhm. moomu ko ministre moomu ko siis moomu ko ñoo ci ñoo ko jëfandikoo daal waaw ñun ñoo ko jëfandikoo suñu alal la quoi ñoo ko moom effectivement ndax ñii fi ne nii ñi tax ñu koy yàq ñoom loolu du leen metti ndax ñoom bëgguñu Sénégal bu fekkoon ñoom dañoo bëgg Sénégal wala ñoom ñuy tiitaroo Sénégal di safoo Sénégal kon biñ gisee ni dañ koy yàq wala ñu ne nii nii buñ ko defee ñii dañuy yàq lii te lii ñuy yàq pour Sénégal kon yooyu yëpp dinañ ko teg ci suuf waaw. d'accord waaw kon ñooñu xam nga Sénégal taxu leen a jóg. jaajëf merci. jërëjëf merci. merci merci merci di ko di ko jaajëfal bu baax a baax ah di xaar yeneen réaction ci 77 810 90 90 mooy numéro bi nga xamante ni moo leen di may ngeen mën a dugg en direct daal di bokk ci ah, waxtaan wi fii nii ci télé Sénégal di télé askan wi ah ci seen euh, émission kaddu askan wi salaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. foo ñu woowee. waaw maa leen di ci biir réew mi. ci biir. ci biir réew mi. Eh, eh, fi nga nekk dafa mel ni dégg-dégg bi dese naa yemb ni. waaw man de waa jooju génnoon tànk. Mm-hmm. maanaam gis nga ñu ne nii bu amee. Mm-hmm. ku ci nekk lay nakarlu mais bu bu ci bànneexul kenn jaarale nga yàq sa diggante ak sa borom. Mm-hmm. maanaam da ngay nakarlu mais quant à Ousmane Sonko moo def nii Ousmane Sonko moo def nii diw moo def nii. parce que ko accusé maanaam bu doon naqam lu jaax la kenn dootu ci wax parce que képp ku ci wax ni moo def wala defoo. Mhm. yaa ngi ci biir duma yi di nga jàpp. Mhm. parce que suñu borom dafa bañ ba am nu mu ko waxee nii lan koy teewaayoo. Mhm. ñeenti doomu aadama ñu bokkul suñu jugee kenn wowul sa borom. ñooy ñëw ne ah fekk nañ en action sax. ñooy ñëpp ñëpp ñu gis nga doo ko mën ci wax. waaye jigéen bu génn taxaw wax wala góor génn taxaw wax nga dëgg cee taxaw ne diw moo def wala diw def ah bu baax. d'accord xool ci suñu diggante suñu borom. politique jarul yenn yi. 2011 xeex nañ ci. 2023 ñu ngi xeex. te beneen dañuy xeex. kon politique jarul. day wut bàkkaar sa diggante ak sa borom. d'accord gars yi bàyyi ma xel bu baax a baax nañ naan yàlla doole nañ jàmm bu baax. Mhm. merci merci may may merci di ko jaajëfal may jaajëfal itam Zahra Ba nekk ci euh, chat en direct di bind ay message Kout Mayba Omar Diallo euh, Saïdé Cissé Fahmata Niang Zahra Ba euh, Sophie euh, Sophie Soxna Kam Sophie Soxna Korea Maham Diop euh, Zepro Cheikh Sadd bu Mboup maa ngi lay jaajëfal Jean Paul Gomis Pape Pape Diaw Alaaji Abdou Baaxi Ndaw Sophie maa ngi dikkaat ci yow ah, Serigne maa ngi lay jaajëfal di la ziar di jël mbokk mi nekk ci buum bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi bu baax a baax. foo ñuy woowee. maa ngi wootee Dieng Dieng Gineew. naka waa Guinée. allo. man naka waa Guinée. ñu ngi lay nuyu baax a baax. ah foofu amul ay yëngu-yëngal. ñu fi moom dafa xaw a daw daal na quoi. ah d' accord donc ci bismillah ban ban jàngat nga ñu defal ci euh, situation bi euh, daanaka li waral coow li ñaari at ba léegi ah, nag. Euh, man li ma gis daal ci problème bi. mooy mhm. mal gouvernance moo andi loolu. maanaam parce que xale xale yi aussi futur quoi. Uh-huh. loolu mooy problème bi. kon li nga xamante man jëpp man mag laa daal parce fu bari dem dem dëkk dund Maroc dund Irak dund Égypte. Uh-huh. léegi maa ngi maa ngi euh, résidé Espagne. Uh-huh. am na dégg ci boppam nii ñuy dund mënul continuer surtout si suuf moo gën a yàqu bari daal waaw. parce que euh, boo xoolee euh, Sonko ni ñu koy utilisé kooku du yoon daal ak ay ay ay ay affaire ñu koy parax paraxee moo du yoon daal. Mhm. Ah. ñi nga xamante ni aussi ñoo ñoo yor si bi seen bopp bu baax a baax. Mhm. waaw parce que incha allah yàgg yàgg yàgg ñu dana kita xale yi est ce que duñ duñ poursuivre ñi nga xamante ni ñooy mhm. ñu nañu def parce que Macky Sall yàgg dem. te ñoom bi bi seen bàyyi ak seen yaay di jàngal. nekk jàngal ñu ne léegi pour ñu àtte àtte yoo xam ne képp même ku ñuy jàng sax xam na ne lii euh, jaarul yoon daal. Mhm. waaw loolu daal maa ngi ñaan yàlla wàccee Sénégal euh, jàmm ak salaam daal. Mhm. xale yàlla mel ne fët ci ci ci li ci kanam. Mhm. Euh, yàlla jox ñu président ne bii day ragal yàlla bëgg bëgg bëgg cité bëgg it nu ñu koy waxati population bi participation daal. d' accord merci. merci te nuyu di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy teeloo ci dëkk ba nga wax euh, muy di euh, gin Guinée euh, di jaajëfal fépp fu sénégalais nekk di ñu seetaan jamono jii ah ca Ziguinchor yëf yaa ngay wéy nag saa saa nag amoon napp dal. waaye jamono ji nag ci information yëf yaa ngi yëf commencé yënguwaat. salaamaaleykum Sénégal set. Sénégal nga nekk. Télé Sénégal. waaw. waaw maa ngi leen di ziar. dina leen di ziar benn foo ñu woowee. di rafetlu di rafetlu seen liggéey. merci merci. ndax defe naa ne télévision nationale ñoo waroon a teg lii te yéen a jël liggéey boobu ma ne ko gis seen askan. Mhm. ndax lii rek lañ nit di xaar ndax lépp lu xew si yow da nga ko war a wane ndax deux mille onze deux mille douze fi la ñu fekk. Mhm. ñu doon gis liggéey boobu noonu defe naa amul la noonu accès ci loolu. ndax mhm. euh, télé nationale yëpp ñu ngi ko doon teg. kon buñ demee ba tey lii di xew kenn waxul am na lu xew mm-hmm. Sénégal lu ma bëgg a wax mooy na nit ñi delloo seen xel mm-hmm. ku mën a wax dëgg nga wax ku mënta wax dëgg nga noppi mm-hmm. ndax luy luy it ñi jàmm ci réew mooy dëgg sa njaboot sax boo fa nekkee ñii di fen ñii di jaxte ñii di ñii di fen ñii di wax lu dul dëgg dinaa seq kër ga du mos a baax te avancement du ko mos a am taxaw na ay Ousmane Sonko Adji Sarr la am problème xamuñ lu xew ndax ku ñu wax ne moom la amal problème lan la indi ci tribunal bi bu muy porte plainte certificat médical bu mu indi boobu setal na nit ki. Mhm. ci toor ndool lu ko tëjoon ci kase gi mooy certificat médical. Mhm. Kalifon Sall lu ko setal ci jaare loolu mooy certificat médical bu bu confirmé ne ay coup de blessé am na mais viol amul. Mhm. ñu bàyyi ko mu ñibbi këram Ousmane Sonko ñu ne Adji Sarr Adji Sarr ne moo euh, répète violé Adji Sarr wol dikku euh, da ko def dam euh, euh, nu mu tuddee sequl dara. léegi yooyu yëpp taxaw ñu teg ko yemul foofu de comme tey nga yore sa xaalis ne dañ ko sàcc tuumaal nit fekk yow direct yi yaay foofu noonu ay caméra ma nga fa. ñu dem dellu gannaaw jël caméra wane gis na yow yaa jël sa xaalis toog ba mu neex la rek def ko sa poche ne dañu diw moom a sàcc ngir bëgg koo sànq. ndax lu indi loolu mooy buñ ñu delloo gannaaw rapport interne bu gendarmerie Ousmane Sonko teg ci kaw wane na ne lépp ay complot la. certificat Adji Sarr ci boppam wax ne lii amul. enregistré Mamour Diallo mu am Mamour Diallo nag yoonam ñëw mhm. de appel yi ñëw. Mhm. léegi nag lu tax ban doomu aadama moom moo taxaw mën a gëmloo Sénégalais ne Ousmane Sonko ak euh, Adji Sarr ñoo jotee xam nga lu ñan ñoo jotee. Mhm. Macky Sall ak la population Sénégal boo xam ne dañ taxaw pour porter projet pour développement du Sénégal. Ousmane Sonko bu ñëwee ci politique bi luy problème bi dafa xam ne politicien classe dañ war a dem retraité. parce que di dóor ci kaw naan du ma toog a président yi pare dem di toog moom loolu moom mos am Sénégal depuis temps Senghor mhm. son Sonko ñëw ne askan wi laa àndal lii laa indi nañ wax ci débat idée te bañ wax ci kii mooy ñoom gouvernement bi ñoo war a yàkkamti loolu kay ndax ñoom lañ jox lépp pour ñu teg Sénégal ci yoon jox leen doole jox leen moyen jox leen budget def leen lépp seen mhm. carburant seen dund seen lépp seen wér bi yaram yëpp Sénégal gàddu ne ko lu tax ñuy teg Sénégal injustice di si rey ay nit ñun wax naa ñaañ ñoo joxee lu tax mënu ñoo wax ci ñu ngi rey fii te ñun Sénégal ñu rey te kenn wax ci lan la ni Sénégalais di xaar ci wax luy développé Sénégal li tax Ousmane Sonko bind téere ñëw teg ci lu tax waxuñ ci xam-xam bu fa teg Ousmane Macky Sall bu dee dafa bëgg réew mi ñun ñu doon xeex pour mu falu en 2011 doon na du ko jàppale parce que injustice lañ ko doon teg pourquoi pas tey mu teg injustice xale imagine la parti PD PS mu a am parti euh, le candidat parti boobu ci élection Ablaye Wade parti au pouvoir jël ko au pouvoir ñëw beneen élection bu si topp mënoo dem mënoo dem élection. Mhm. injustice moo ko indi lu tax tey Ousmane Sonko indi porte combat bu noble pour le développement de Sénégal mais développement de Afrique. Mhm. la population Afrique bu buy tey jii nekkul bu deux mille douze nekkul bu mille neuf cent quatre vingt. Mhm. dafa nekk population boo xam dañu réveillé dañ xam lu dox ci adduna bi dañ génn diggante bi dañ ci gën a génn gën ci jàng am ci expérience xam luy ba pare adhéré wu ci politique à grâce de monsieur euh, monsieur le président Ousmane mhm. mais il faut nit ñi honoré ko tuuti quoi jàppale ko te xam ne lii Ousmane Sonko dara newu ci mënoon a toog dund ba deetu du kii moo xam na ko boppam dund na boo toll fii mosut a amal justice problème depuis keroog bu mu duggee ci politique la commencé amal justice problème. Mhm. léegi lu tax nit ñi duñ wax dëgg te xam ne Ousmane ñu wax li jëriñ Sénégal Ousmane Sonko li jëriñ a wax lu indi fitna Sénégal. Mhm. mais nañ dellu ci si loolu nañ wax loo xam ne mooy ay fee ñu bàyyi caaxaan yi. d'accord Ousmane Sonko am na droit bañ a dem ndax buy dem lan moo ko fay fekk ñaata yoon lañ ko agressé pourtant ay saa dañ koy protéger indi ko. ñuy gis ay membre ay GIGN ko kii di ko indi euh, ba bi. Mhm. mais Ousmane Sonko lan lañ ko dañ koy topp ay géré naan la kër seen. Mhm. mu wóor ne Ousmane Sonko nii wax sa diggante yàlla xam ne nag bakkanam mu ngi ci dansé te man bët bu set dama naa Ousmane Sonko tey lay dee. tey la ma koy ah man chaque jour loolu laay xalaat tey maa ngi ñaan yàlla musul ñu ci loolu ndax bëgguma Sénégal tàkk ndax moom la am uh-huh. ñun ñëpp bëgg Sénégal lañ bëgg bu ñuy rey suñu bopp di nooy gër naan la comme ça place de l'Obélisque pour Macky Sall falu ndax daf am lu ñu digal la soo gouvernement sobre et vertueux la patrie avant le euh, avant le parti ñoo ne réduction du compte mais réduction du compte lan la def dafa indi indi créer un corps illégal uh-huh. ñëw condamné ci benn candidat pare tey lu def nag leen dossier maa teg sama cooñ uh-huh. ndax cooñ ndax dossier yooyu noonu mos na mos na am danger pour pour menacer déstabiliser biir wóor tey mosul am uh-huh. pourquoi pas tey lii ñaata nit de quatorze personnes de ñu wóor li bu naan Mamour Diallo taxaw ne day ci Maham Diallo taxaw ne day renvoyer dossier bi uh-huh. mais boo renvoyer dossier ci lan fan nga koy teg yéen preuve matériel yow indi na loo xam ne lépp ku tuumaal indiwu dara mais ku ñu tuumaal indi lépp luy wane lu mos a wax tey démb ba tey yëpp dëgg la. mais uh-huh. quand même dama rus su may dégg yéen ñi di wax dama naan ñii dañuy jaay seen réew wala bëgg dañ bëgg seen réew damay xam ne ñooñu ku leen joxoon almin ñi def Sénégal doom parce que ñooñu seen wax yooyu noonu moo oh kooku kooku kooku dem na vraiment di ko di ko jéego jégalu lu baax euh, mën ngeen woote ci 77 810 90 waxtaan wi ni ngeen ko gisee noonu nag tey euh, ci suba ca Ziguinchor fi euh, nga xamante ne fa la Ousmane donc Ousmane Sonko dëkk yëf yaa ngi tàmbaliwaat gis ngeen sànq noonu sax am nay grenade lacrymogène yu ñu tàmbalee dóor fàttali leen foofu noonu ci Ziguinchor am na ñaari nit yu jot a ñàkk seen bakkan kenn ki nekk ab takk der kenn ki ne nekk ab ndaw soo xamante ne. tur wa kenn xamagoo ko ci communiqué bi nga xamante ne ministère de ne jot na ko daal di euh, fësal loolu lañ ca daal di seetlu salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ngi si jàmm bu baax a baax. fan maa ngi wootee Dakar. fan ci. Dakar Dakar. jàmm bu na sant. di métti lu def xaw si réew mi rek. Mhm. na a xaaral moo. Uh-huh. ñun de ñu ngi nii ay dans néew doole la ñu ngi tey di jiw. Uh-huh. te xam nga nag am moom suba moom dépense suba tey nga ko ci jënd. nekk uh-huh. ci marché war a tax benn nit benn affaire boo xam ne nit bi ñu ko jiñee yoon fédéral Sénégal su deful dara kenn mu ngeen na ba ci capitaine bi te affaire bi ñu ko suuf mu gën. jeex pendant neuf mois def ci élection am na yaakaar ne war nañu sama kenn. man mi mhm. waxee damaa bëggoon ma mais man bëggatu ko fi toll nii parce que maa ngi nii maa ngi nii war a am ay natt yu mu war def parce que bu ma xëyee damay natt te mënuma natt liggéey. Mhm. sama dépense kër maa ngi nii xam nga dépense démb bi moom laay dépense su boobu man daal sa waaye mais man jaaxal naa si. dañ mhm. waxtaan guerre mondiale sax suñ négocié lu mujj xam nag ñun nag comme mënuñu lu wax wax lañ man nañ wax rek ba xam dana jëriñ suñ kàddu moom suufe na waaye nag nañ wax rek. Mhm. yal na yàlla doon jàmm daal waa taat. jaajëf man daa yaakaar naa nit ñi ñu jiñee dara mais témoin bu ñu leen ne kii def dara médecin bu ñu leen kii def dara capitaine bu doon enquête bi ne ndax moom ñu ko naroon def ko. même enquête sàmbur mu ñëw setal ko kon si wax dëgg yàlla dañ ko waroon a sànni ci àll ba. Mhm. yow ñaata personne ñoo dee démb. ci benn dossier boo xam ne ñaareel ci vraiment. waaw nit ñi tamit ngir yàlla nit ñi ñu solo nañ di parce ñu mag dañ ko bañ. merci merci merci wala rek. merci merci. billaay wala dañ ko bëggoon mais dañ ko bañ ndax lii. ñun tërali suuf dimbali nit ñi ngir yàlla te yàlla tax. Ah, ndax daa may ko ak rajo yi mais télé rajo yi ñu yàggalee ñu ko wanee ñu tëj dañuy dañuy oh, kii parce que télé rajo yi lu tax wane ñu ko dañoo ragal ah. état dictateur te moom bàyyi kenn ñëpp la kii bu ñu waxul daal bi ñu bii bu ñu waxul. Mhm. yal na yàlla dimbale si sutural waaye nañ nañ ànd ak yàlla yàlla baax. jërëjëf amiin waaw ah, non vraiment parce que là je reçois vraiment des images yi nga xamante ne euh, moom lañ jóge jëlee Ziguinchor mu nekk ay images vraiment yoo xamante ne ña dem ca dëkk ba xam dëkk ba man mii dem naa fa dem naa ca dëkk ba fi nga xamante ne fa la affrontement am. Euh, am na foo xamante ne xam xam xamee naa ko me ne dafa dama meloon ak jamono ji na mu mel vraiment nekk na nekk na lu doy waar fa nekk vraiment ñoo ngi leen di masaw euh, ndax grenade lacrymogène yi xet gën ñëpp xam nañ nan la mel surtout su nekk ñi nga xamante ne am nañ xëy na ay problème comme ñi amee feebar bu ci mel ni asthme wala nga amee drépanocytose euh, lii la lépp nag mën laa jural ay loraange donc vraiment di ñaan bu baax a baax dal mën na dellusiwaat fi nga xamante ni moo di foofu noonu ca Ziguinchor salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. suñu la ngeen def. ñu ngi sant. fa ñu woowee. Euh, Touba. naka waa Touba Mbacké. ñu ngi ci jàpp. ban jàpp ngeen di def euh, ci situation bi jamono ji ci biir mi. waaw. naqar rek. mu doon. ko. buñ ko kon. dara mu doon. beneen bi ci salaamaaleykum salaamaaleykum allo salaamaaleykum yooyu waaw kooku je pense que dafa am xaw dafa am ay jafe-jafe ak réseau téléphonique bi donc di xaar keneen ci 77 810 90 90 vraiment euh, Ziguinchor la fay jamono ji Euh, neexuta neexuta neexuta bàyyi noonu itam faw rek ñu daal di ci wut ay ay solution procès bi renvoyé nañ ko donc je pense que euh, y a plus besoin que euh, ñi nga xam ne ñoo ñu takk der yi continuer ci dëkk ba ndax su nekkee ndaw yi ñoom la ñu gis ba tax jamono ji ñoom ñoo ñoom ñoo ngi baari télé ba ak ay sànnante xeer ak grenade ak lacrimogène donc procès bi kañ xanaa renvoyé nañ ko ñoom war nañ mën a dekk del deltu ginnaaw itam ndaw yi ñoom itam ñu mën a dellu ca la ñu nekkoon salaamaaleykum waaleykum sëñ bi leen def. alhamdulilah. Eh, ci bisimilah. maa de sëñ. waaw sëñ bi yow fi nga nekk da xaw am ay jafe-jafe réseau ndax doo déplacé wu ba euh, mbir mi yem nga soog a mën a wootewaat. baax d'accord merci di ko jaajëfal mbokk moom doon woote depuis Touba Mbacké xam naa nag fi mu nekk réseau téléphonique bi moo xaw moo xaw a yemal ni di xaar keneen ci 77 810 90 90 fàttali leen ne procès bi euh, daal di dañ koy euh, dàkk ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru ne euh, gi ñu nekk maanaam na bi ñëw nañ nar a àttewaat yëf yi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi na ngeen def. ñu ngi woowee. woote Ziguinchor. yaa ngi wootee. Ziguinchor. Ziguinchor. waaw Ziguinchor waaw. waaw eh, yow mi nekk eh, Ziguinchor eh, ban jàngat nga ñu ni def actuellement ci li nga xamante ni moo fa nekk surtout boori Kajoor HLM Néma Bukot fi nga xamante ni daanaka fa la fa la affrontement yi gën a méttee. waaye saa yu kon kenn kenn mënut a xëy waaye nii dem ba léegi soo paay mën ngaa ubbi. soo bëgg a amee gis ay ñu ko gaa yi taw di kan ay nekk ma serfone moom mooy guddo ma trop. waaw vraiment ñu sonn nañ sonn nañ trop. waaw te gis naa ne waral bi lépp amul na lu am njëriñ ay bis yoo xam ne deux cent nga nekk ñu sonn si trop. te xam naa ne ñu ngi leen xalaat yëpp benn bi dëgg. li soppi ki soxla ko rek te mënuñ kaa bay jàmm. d'accord. waaw loolu métti na trop bu weer si ma soxla moom ñu ngi di xeex xalaat métti na trop trop trop. d'accord. waaw ñun ñun comme ñun ñun ñu kaa expliqué li si nekk ñun ñu kaa expliqué ndax métti yàlla xam na ko. Mhm. métti na trop. waaw muy maire yaa xale yi yëpp a ngi fi. fii boo mhm. ñëwee fii benn war. Mhm. waaw ñun moom ñu ngi ñaan rek Sénégal yàlla na ko si jàmm. waaw ñu ngi leen rek mais doon na des na trop. d'accord merci. merci merci de ko di ko jaajëfal mbokk moom doon woote Ziguinchor waa jot ñoo wax un peu ah, ci li nga xamante ne la fa la fa am ndax ñu sax ci xibaar yi nga xamante jot nañ ko moo di foofu noonu daanaka dem gaag dikk moom amatul. daanaka képp koo xamante ne sundul sa oto bopp ba nga xam ne yaa ko yor mais lépp luy moyen de transport foofu moom ca Ziguinchor daanaka jamono yi dafa am gàllankoor ndax taxi yi ñoom gaare nañ ko waa Jakarta itam nga xamante ni ñu bari ci population ba nekk ay ndaw ci la liggéey gaare nañ ko fii ci Ndakaaru sax ay nañ ñëpp ñi nga xam ne ay dëwru lañ yor ñu daal di euh, doxal euh, ni ki euh, démb ak tey donc lii ne tamit nekk na xibaar bi nga xamante ne gouverneur bu ndakaar daal na koy daal na koy jël donc ñëpp ñi nga xam ne yor nañ ñaari roue di moto tere nañ leen daw Euh, démb ak tey leen lépp nag ngir gën a aar seen kaaraange ci nañu ah, ci ni nga xamante noonu la ko gouverneur Dakar daal di gisee salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi na ngeen def. Euh, ñu ngi sant Serigne Sall bu baax. fa ñuy woowee. maa ngi woowee diwaanu Touba si Abdoul Khadir. bu baax alhamdulilah. ban jàngat ngeen di def ci situation bi jamono ji ci biir réew mi. waaye sant nañ ko yàlla bu baax a baax a baax nag. Mhm. ndax yàlla saa borom moo dogal yëngu yëpp. Mm-hmm. waaye nag am nay sabab mm-hmm. am nay sabab sabab bi mooy ñi nekk ci kaw nguur bi ci pouvoir bi mm-hmm. ak ñu nekk ci kujje yi waaye waaye allo oh kooku kooku dem allo waaw waaw ma ne ko àddina àddina doxewul noonu nit ku ne da ngay rafetal sa xol rek te nekk ci àddina. Uh-huh. ndax uh, lii ñuy def nii àddina jaru ko. Uh-huh. dénk leen ma donc donc jëru rayante. Uh-huh. kaay ma teel sa alal ji. jëru nañu xool mbir yi nañ ko mën a négocier mu gën a sedd. ndax man naa mujj koo xam du la neex du neex lu ma neex man li du neex sama morom. kon nag waxtaan moom. fii lañ ko fekk te fekk day bari. ndax diggante yéefar yi jullit ñi sax bi coow li bare dañoo def benn accord. loolu arab di tuddee ak sulh mooy yéwénoo kon nag Macky Sall mii na waxtaan ak Sonko ni na waxtaan ak Sonko réew mi continue mais sëñ bi sëñ bi soo ma mayee naan laaj mais est-ce que fii fii fii fi fii fii fii jamono toll ak fi nga xamante ne daanaka foofu la mbir mi toll ndax waxtaan mënati na am ndax waxtaan mën dina am su fekkee dossier bi dañ ne depuis lors daanaka ay euh, loxoy politique moo ngi ci biir ñu koy bay bayal di ko di ko traîner ah boobu ko am beneen procès bi nga xamante ne sax am na ba noppi ah, ndax waxtaan mënati na am. am ndax ku wéete sa njëgën rek li nga xam ne nii nekkoo ci mhm. nekk ci a dina xam am na loo xam ne nag ragal yàlla moo koy am. Mhm. waaye nit bu ragalut yàlla am na loo xam ne kenn mënu ko woo. Mhm. ndax yaa ngi noonu tey tey sa njaboot gi nga am ku koy yëngu ne dama la yóbbu Amérique tey jii taxaw nga ni am carte d'identité da ngay xam ne lii mënul nekk kon nag lu mën a nekk moom ne xamee na ko. Mhm. ñun daal li ñuy ñaan mooy Serigne Saliou yàlla mu ñaan yàlla yàlla def ci jàmm. te ñu di waxee léegi. mooy kilifa yi nag kilifa yi nan wax xam nga ku bàyyi kilifa gi mu toog nga dem taali dëkk ba ba ñëw di ko laaj xalaat te fekk pàkk na ba pare <laughs> loolu xalaat amatu ca d'accord am na loo xam ne kilifa yi seen yoon nekku ci ndax da nga cee la la neex mm-hmm. ba pare ñëw di laaj kilifa di laaj kilifa gi xalaat mm-hmm. nanu bàyyi loolu kilifa yi lañu war a wax ñante ñoom ci diina lañ leen xam ci lislaam ak lu ak lu jaarale ak lu jaarale nit ñi ci yoon bu dee nag yow yaa leen fi bàyyee dem defe la neex loolu de fekk rek na nga ko yanoo ñu ngi ñaan yàlla ci ndox mu sedd nag. amiin amiin yow it yàlla defal la jàmm ji yaatu. merci merci beaucoup merci. ndax bëgg liggéeyee sax ngeen jël seen numéro def ko numéro Sénégal fii nekk numéro orange ak ak wala Tigo. Mhm. jëru leen crédit kenn ci service commercial. <laughs> yàlla na yàlla kàttan leen nag Serigne Saliou Mbacké. merci merci merci jërëjëf jërëjëf. jaajëf jaajëf. jaajëf jaajëf di ko di ko remercier mbokk moom di xaar keneen ci 77 810 90 90 ah mu di numéro bi nga xamante ne fu waay nekk ci àdduna soo ci wootee daañu ñu ci euh, mën a jot di jaajëfal bu baax a baax itam ñi nga xamante ne ñoom ñuy bàyyi xel ku ci mel ni euh, Fatou saar Awa Diatta Kamara Kumba Kone euh, Kamara Kumba Kone plutôt Cheikh Diallo Maam Thiox Maam Mor Thioune Khadim Dioum Touba Teranga TV excom Zahra Ba Khadim Dioum Mansour Guèye Mansour maa ngi lay jaajëfal di la nuyu parce que fàttewuma la parce que Ndoye Jaw ji bi ah, Abdou Bakhay Ndaw ah, Sophie Camara ak Max Diop yéen ñëpp ñoo leen di jaajëfal di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay ñu jël mbokk moom ci buum bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi sant baax foo ñu woowee. allo. waaw mbokk moom di ko nuyu di ko jaajëfal fàttali ñëpp ñi nga xamante ne vraiment ñoom ñoo ñuy bëgg a woo dugg en direct bokk ci waxtaan dañ leen ñaan rek ngeen di wuyoo euh, téléphone bi ngeen di dégloo téléphone bi nga xam ne moom ngeen di wootee ndax euh, soo ñu dégloo benn téléphone bi day am internet si bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi foo ñu woowee. Ngelaw. Martin Ngelaw fan nekk Thiès wala Uhm, naka waa marché ngelaw. ñu ngi sant bu baax a baax. ayca bisimilah ci waxtaan bi. ñu ngi leen jàmm bu baax a baax. alhamdulilah. waaw yëpp yi daal xew. Uhm. doy na war lool. Uhm. ndax euh, jamono ji nii. sa sama na asbal sama bi kasoon bi daan jël bul daan la kasoon ba allah xalaat mi wax nañ daan dem rayante yu bari waaye dana wax ne bu boobaa nag kenn ku ne na taxaw sa néeg <laughs> waaye nag doomu aadama daa war na teg tànkam boo xam ne ni leer na lii dana mën a jubal ci aw yoon <laughs> te ñëpp a tege ci yoon <laughs> jërë ngeen jëf d'accord merci euh, gàtt na waaye itam am na solo ah <laughs> ma ne ko gàtt na waaye itam am na solo kàddu yi nga xamante ne moom mbokk mi jot na ko yëkkati te xaar kanam ci 77 810 90 90 fàttali leen procès Ousmane Sonko Adji Sarr daan dàkk nañ ko ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai maanaam talaata gi ñu jëm ci la ñuy defal li nga xamante ne moo di procès bi waaye jamono ji itam sigi coor maa ngay yëg maa ngay wéy di am ah, foofa noonu ah, salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. mbokk mi na ngeen def. ñu ngi sant yàlla mbaaw waaw mbaaw waaw grand mbaaw waaw grand mbaaw ni ki démb ndax amul benn station bu ñu fa lakk mais fii moom amul station bu ñu fi lakk xëy na ñu waaw bi nekk fële ne euh, Richard Zac ah, waaw d'accord ah effectivement donc foofu la foofu la hmm. merci merci pour la précision euh, waaw hmm. mais mbaa yéen a ngi si jàmm rek ñoo ngi sant yàlla bismillah ci waxtaan la alhamdulilah Euh, maanaam bu réew tollee fii. allo sëñ bi. allo waaw. su nekkee da ngay wuyoo ay casque wala nga def ko opéra dañu. non yoruma yoruma ay casque. ah d' accord d' accord. allo. oui. allo allo waaw ñu ngi dégg bu baax. waaw ma ne yoruma ay ah, dégg-dégg bi gën na yemb. Mhm. waaw yomb na fan parce que fi ma nekkoon moo xawoon euh, am ngelaw quoi. ah d' accord d' ngi jégalu. Mm. mu ne bu réew tollee fi dañuy xool dañuy xool kii tooñ te yor doole ñu téye loxoom ba du tooñ ba du doole aussi fii kenn rek moo fi yor doole muy nguur te nguur mooy tooñ hmm. te yàlla seete na ni xam nañ ni ñoom seen jëm bopp xam hmm. nañ ne dossier bi ñu topp ni amul dara lu ci nekk te Sénégalais yëpp attan nañu ba noppi kon nag li fi indi lii yëpp ñoom mi neen nag Macky Sall jamono yële passé dafa taxawoon ne jeune yéen ñëpp naa seeni wax waaye dama yaakaar ni déggul lañ ko doon wax waaye jamono ñu toll moom dafa toll ci fayantoo ak ñer taxaw ne Euh, lu ci amoon du fi amaat. waaw sëñ bi sëñ bi. Mm-hmm. soo ko mënee mën naa la laaj. ndax euh, kilifa. Mm-hmm. ñu dénk la réew. jox la moyen nga ca war yépp. Mm-hmm. jox la doole da ca war yépp. jox la alal da ca war yépp. war ngaa fayantoog sa askan. waaw loolu mooy loolu mooy euh, baadoola rek ngeen dégg na si waat parce xam nga doomu aadama. duñ la fal ci kër euh, nga war a yor kër gi sàmm kër gi mhm. ngay yor lu yàq kër gi mhm. da ngay jéem a xool ni ngay defaree kër gi mhm. waaye tey jii booy xool ni ñuy tudd ci ay rapport yëpp ci njabootam yi dañ nekk ana kan kan nga dégg rek ñu woo ko ci milliards yi milliards la topp ñu ko. Uh-huh. jamono yële passé maa ngi dégg euh, Yérim Cheikh Yérim Seck xaw ma muy wax euh, si dossier yu Ousmane Sonko yi te moom dafa fàttali moom mi ngi am ay dossier yu gën a garaaw fukk junni yoon yu Ousmane Sonko te waxul loolu mu ñuy wax waxu jàmbur. Sénégal dafa doon dafa doon dëkk boo xamante dañuy dafa yomb wax dëgg mais dañ ko du wax maanaam wax li nekk ci ginnaaw dëgg la moo gën a yomb kay mu wax lu luy dëgg gis nga xale yi nag kenn mënu leen téye ginaaru kenn mënuñu loolu mooy cause bi yàqal waaw waaye defarañu suñu dëkk ak kaa nga jox ñu ak seen dëkk yàqal lañ ko kan nga siy topp loolu ah ñun ki ñuy defara suñu dëkk lañ lañ topp topp ñu ki nga xamante ne dégg suñu alal di ko di ko di ko di ko sàcc di ko yóbbu si réewum tugal ñun topp ñu kooku uh-huh. Ousmane Sonko lañ gëm te moom lañ gëm uh-huh. loolu dafa leer dama bëgg Sénégal yépp xam loolu d'accord merci ñun topp ñu merci merci merci. loolu dafa am. ngeen jégal monsieur Mathieu kàddu gi. merci ñoo ngi koy remercier bu baax a baax ah, fàttali leen jamono ji itam ca ca Sigicoor xeexoo yaa ngi xeexoo yaa ngi wéy de xeexoo yaa ngi woy vraiment ndaw yi ñoo ngi woy di jàmmaaloog ñi nga xamante ne ñooy takk deri comme image yi nga xamante ne moom ngeen di moom ngeen di ah, gis noonu en direct ah, fi nga xamante ne moo di ca ca ca ca ca ca Sigicoor vraiment mu nekk mbir mu mbir mu mbir mu doy waar xeexoo yaa ngi wéy vraiment mu nekk nag li nga xamante ne euh, ñun euh, bëgguñu bëgguñu mu am. Cheikh Diop Cheikh si maa ngi lay jaajëfal yàgg euh, altruisme Fatou Sarr Serigne Faye Ndate Dieng Amine Ndour. ak ñëpp ñi nga xam ne vraiment ñoo ngi ñuy teewlu jamono ji salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. ci jàmm. sant yàlla baax ah, man. yaa ngi woowee. naka waa Touba. ñu ngi rek alhamdulilah ñu ngi ngi sant waa ma affaire yi moom xalaat dégg ma. ma tey bala néegu mawal yéen a ngi dégg përëg ay yëngu. sëñ bi sa sa fi ngay wax euh, dafa dafa mel ni euh, da takk casque wala wala. wala takk na ngelaw am waaye mbaa foofu am tey. ah bon jamono ji nag ca Sigicoor rek moo moo jot amagum ay yëngu-yëngu ci xibaar yi nga xamante ne. moom la ñu mhm. amagum waaye ci ndakaaru nag démb ba ci ba ci démb si guddi vraiment bëri na ay dëkk yi nga xamante ah, te ne ah, am na ay ay. tey ah, tey tey. Mhm. tey amagul de vraiment à part Sigicoor moom déggaguñu euh, biir ndakaaru ne am na ay yëngu-yëngal yu amagum. man boo xam ne buñ ko defee bu yàlla jàmm na bi lan la. mooy pour Adji Sarr lan la man kañ dégguma la. mën na ko soxna nga génn ko réew ñu jël Adji Sarr mën na ko soxna. waaw. bu sëy waaw amul problème waaw amul problème léegi balaa ngaa coupé ci suuf dañ la jox numéro Adji Sarr xanaa après nga wax ak moom kon. ah est-ce que du la may wax ak moom ah, am na numéro. Ah, ah waaw man man man joxoon naa la waxoon. man ma la jëlee kàddu comme ça yàlla génn ci réew mi. Mhm. dem ñu dindi daal ñu ne ma damaa ma daa jox ma loolu. <laughs> mu nga paak paak su ndaw si ak fant ak robe bi. ah naa am sëriñ bët wax naa ci moom man gàntal maa ngi maa ngi boole ma mu ngi di set ah di foofu cent cent cinq kilo mais Sénégal man naa mën naa dundal bopp waxal waaw d'accord sëñ bi merci ñoo may jaajëfal jox ma numéro bi waaw problème si kanam dañ la jox numéro Adji Sarr loolu du benn problème merci waaw ah, baax. merci merci. waaw boo xam dëgg la. d'accord merci. Ah, waaye moom waaye moom moom waa moom waa ji wootee moom nee na dafa ngir solution dafa bëgg ñu daal di koy may mu takk Adji Sarr ah mbir maa ngi noonu loolu moom dama ci commentaire naa ci bàyyeek eh, ñi nga xamante ne ñoo ñuy eh, seetaan ah, ñu gën a ñu ñu daal ci sànni seen dojo xorom daal. waaw salaamaaleykum. salaamaaleykum. sëñ bi na ngeen def. tamit Cheikh Fall baax. fa ñu woowee. Touba Mbakke. naka waa Touba Mbakke. day am jàmm baax. alhamdulilah bisimilah ci waxtaan bi. waaw bisimilah man de dama bëggoon a mhm. Sonko bi. Mhm. de daf ma metti mhm. bëgg ñaan benn yi ñu xam ne. yàlla seede na ne bu nekk Ousmane Sonko si réew mi. da dara metti réew mi loolu. man léegi nag dama am gëm-gëm boo xam si ne. jàpp naa ne réew mi ci loxoy Ousmane Sonko rek la mën a demee. la mën a soppeekoo maanaam. la mën a soppeekoo cent pour cent. ndax man man Sonko damaa déglu ay waxam. te dama ko dund lool. d' mu dégg nit ñi jàmm ak salaam. d' te bi te bëgg ma gaa yi bu fekkee dee moom ñii dee nan dee ñu ngi ñu ngi jàmm am. Uh-huh. bu fekkee loolu pexe mooy tax jàmm am Sénégal. Uh-huh. nan nga ba mu jeex. Uh-huh. billaay wallaay. ñoom nag maa ngi ñaan yàlla na ko suñu borom may jàmm. d'accord. si la merci merci merci. yàlla na def jàmm rek. merci di ko jaajëfal bu baax baax. merci vraiment euh, ki njëkk a wootee Fatou Sarr nee na <laughs> Fatou Sarr Fatou Sarr Fatou Sarr merci moom moom vraiment waa ji da koo daal di daa da koo daal di euh, faj Camara Kumba moom nee na waa ji dafa dindi stress am ki waxoon ñu may ko Adji Sarr nee na dafa dindi stress am ah mais tamit ah bëgg-bëggam la wax vraiment xam nga Sénégal bi ku ci nekk am nga saxla ak sa bëgg-bëgg moom Adji Sarr la bëgg a tax kañ ah vraiment xaal nañ xool na lañ ko xaw mën a jàppale rek mu mu def ko soxna. waaw moom daal loolu la bëgg vraiment. Euh, di ko jaajëfal di xaar keneen ci 77 810 90 90 muy numéro bi nga xamante ne ah, ci ngeen mën a jaar ngir rek daal joxe seen xalaat ci waxtaan wi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk. sëñ bi na ngeen def. ñu ngi sant baax alhamdulilah. foo ñu woowee. maa ngi lay woowee Ouest Foire. ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. Euh, mbaa foofu noonu amul ay manifester ba amuñ fa yàq. fii noonu dégguma fa dara. Mhm. parce que xam nga ci tey ñoom daanaka amuñu ay représentant. Mhm. wala ñoom seen yëngatu lu bëri dafa tax. Mhm. mais daal euh, day na waar. même suñu amul ñu leen représenté suñu génnul sax seen xol naqadi trop. parce que lu xew ci dëkk bi du yoon. te lu dul yoon ñëpp war a jóg ànd sa xeex ko pour mu jugee ko ñu mën a am jàmm te jamono yi ñu toll nit ñi ku nekk xam na fan la ay bi féetoo ak ñan ñoo koy provoqué ak ñan ñoo koy xam xam nga ne procès boo xamante ne xam nga en droit dañ lay wax ne su fekkente ne mbir dem na ba bëgg a taal ab réew mhm. day jaadu si juge yi ñu mhm. joxe décision boo xamante ne day indi daal si réew bi mhm. loolu mooy droit effectivement loolu mooy l'esprit bi te loolu moo tax ñu naan réglementation effectivement te soo déggee ñu naan pacte social loolu lay wund parce que nit ñi dañoo amutoon jaamu ñu daal di daje def ay règle mhm. daal di koy dénk benn autorité mhm. ne ko gérer ñu jàmm ji mhm. mais su ñu demee ba autorité boobu noonu moom mooy provoquer nit ñi di provoquer ay ay nga xam ne toog euh, waratut ñu war nañu jug laajaat seen jàmm te nag lii ni Sénégal mosu ko am mosu ko xam ñu ngi koy door a xam na mais nag xam nañ lu tax am mhm. nañ lu waral li yëpp parce que réew mu mu amoon ñëpp jub nañ daal di song réew boobu mhm. moo xam au niveau international moo xam au niveau interne mhm. man fekkee lii mu ngi am Sénégal kenn waxu si ñëpp ne pat xam nañ lu tax mais nag gis nga réew mi ci Sénégal yi rek lay delluwaat il faut Sénégal baax il faut population bi nga xamante ne longtemps mu ngi souffrir il faut loolu dakk mhm. dee gu ñuy dee ci géej gi mën a am visa bi ak lekk seen alal bu ñuy lekk mhm. loolu il faut mu dakk parce nañ de ngi daal mét de mhm. nit ñi am nañ naqar de nit ñi mënuñu faj nit ñi mënuñu dund lekkuñu te loolu il faut mu dakk yaakaar day am ñenn ñoo xamante ni aw ñu tuuti lañ Mhm. ñoom ñooy jël àll réew mi di koy lekk di ci sàcc mhm. non seulement ñu ngi leen di fay ci seen i mais loolu doy leen ñu ngi détourné ay milliards askan bi nekk fii di loolu dina dak loolu mhm. dina dak faagaagal Sonko terew koo dak merci merci merci xeex projet terew koo dak merci sénégalais yi ñoo jug te dinañ ko dakkal si nii wala si nal merci te incha allah ni ma la ko waxee ne noonu lay am merci merci dafa jot autorité soppeeku dafa jot ñu changé. Mhm. dafa jot ñu yërëm Sénégalais yi. Mhm. ñu daal leen aussi développement. Mhm. loolu rek moo mën a andi jàpp. jaajëf maa ngi rafet na vraiment vraiment jaajëf yi rafet na vraiment vraiment kàddu yi rafet na sunu sunu sunu sunu sunu tonton Pape euh, Mamadou Bari ñoo ngi lay jaajëfal gis nañu message ak encouragement yi ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañ participer ci waxtaan wi da ngeen def 77 810 90 90 mooy émi euh, wax. Euh, moo leen di permettre ngeen dugg en tant bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo. ngi sant yàlla baax foo ñu woowee. maa ngi wootee Pikine. yaa ngi wootee. Pikine. naka waa Pikine. waaw ñu ngi sant. ndax ñëpp ngi ci jàmm. ah am na ñu ci nekk jàmm de. <laughs> lu waral loolu. ah xaw xaw ba ñëpp ci lu nekk. Hmm. voilà sama bopp daal maa ngi ci jàmm man. <laughs> alhamdulilah. waaw si benn côté. Hmm. bisimilah ci waxtaan wi. waa di wax li xew ci réew mi rek. Hmm. seetaan bi foofu mais ku seetaan rek sa bopp ñu ngi ci lu ñu war. Hmm. ñu seetaan ñu ngi ci leen war. mais ku nekk sa bopp rek. tey damay ñëw ci li xew tey. lu démb moom passé na. muy renvoi bi nii. suñu candidat dina wuy su amee sécurité mais dégluwuma ko loolu. Mhm. ban sécurité lañ koy envoyé. Mhm. nan suñ xel. d'accord yow ban sécurité nga xaar ñu envoyé ko ko moom. Mhm. sécurité boobu moo ko bëgg a faagaagal ban sécurité lañ koy jox léegi muy indi ko loo xam ne bu ne si wala war a fanaan si Dakar fan lañ koy fanaanal. su xëyee ñëw sécurité bi ñu la jël yóbbu la ne la doo àgg baara sa oto la ne leen ne la doo àgg. Hmm. lañ koy jox. tribunal tey ñu war a àtte àtte neuf personnes la bëggoon a àtte tey ba ko see boole àtte bi du àgg du àgg suba. Hmm. ñu jël dugal ci kaso ni après ñu jàpp benn bi ci àggale. ñu ne léegi dañuy def benn jour boo xam personnel la àtte mille mille vingt trois bi ñëw. Hmm. léegi la le 23 bu ne le 22 da ngay présenté wu ne maa ngi Dakar suba dinaa teel a ñëw. <laughs> mais ban sécurité la lay envoyé pour ma garder la. Mhm. Sonko ñun ñooy sécurité du dem tey du dem suba même moom bu lay day dem ñu ñoo ngi demul. dénk benn kàddu lañu ñu am pour que faatu démb xale bi diwoon ci bopp bi ñu faatu dégg ngeen ñaari kàddu la ñu moom la kàddu tàggatoo yi moom la génnee àdduna. Mhm. mooy bi ñu naan dinañ ci rendre vidéo bi ci gaañu ci minute nee na bu leen wor Sonko mais Sonko bu la dégg si lu ñàkk ful baat boobu lu mujj wax ba mu génnaat a te ñun ko takk nañ ko téere suñu candidat duñ ko dégg si lu ñàkk la mais duñ ko ah, duma ko allah nag plan yi tëral yëpp benn ci auge benn benn benn mais bu yàlla defee mu échec voté du am si réew mi dooma laaj ci lan allo. oui ñu war a déglu leen jamono ji benn benn benn plan bii la ñu taxawal tey bu ne woon tey la voté voté tey tey tey. Hmm. base bu ñu fekk danañ ko taal fu ñu école bu ñu leen fekk yow doo voté sa morom hmm. ñu gardé kenn du voté si réew mi. ñu ngi def hmm. jëmb réew dañuy def kenn du génn voté. carte dañ koy taal base bu ñu fekk ni ñu voté ñu dàq leen loolu la ñu pare ok. d'accord merci. merci merci di ko jaajëfal bu baax a baax di xaar yeneen réaction ci 77. 810 90 90 mooy numéro bi nga xamante ne euh, ci ngeen mën a daal di dugg bokk ci waxtaan wi Ndate Dieng Serigne fay faatu Sarr maa ngi leen di jaajëfal Fatou Matam Amin Ndour Val Kamekam King Boba Masakasi ak Mohamed Gissé invisible maa ngi leen nuyu Abdou Fall itam Fatou ma la maa ngi leen di jaajëfale ñëpp ñi nga xam ne yéen xel jamono ji ci chat en direct bi salaamaaleykum waaleykum salaam. mbokk mi nañu def. waaw soo ak Maodo. foo ñu woowee. waaye man xam naa ne loolu damay déglu man. de de Bénin. allo. oui. j'appelle de Bénin Cotonou. Bénin Cotonou. oui. Allez-y, vous êtes en direct dans Télé Sénégal. Monsieur le Sénégal, on doit avoir peur. Le Sénégal, ce qui se passe là-bas, c'est dangereux. Pourquoi vous dites c'est dangereux? C'est parce que le problème de Adji Sarr c'est des faux problèmes. C'est des faux problèmes. Et l'État a compris que c'est un faux problème. Mmh. Comme il y a des manipulations, l'État veut Donc un, tout, Sénégal a eu d'espoir, même l'Afrique. Effectivement, nous avons bien compris. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que les Sénégalais ne dorment plus. Les Sénégalais se sont réveillés. Mmh. que les jeunes d'hier et les jeunes mhm. y a une grande différence. Uh mhm. -huh. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont dans leur cœur. Uh mhm. -huh. Et ne peut enlever ça. D'accord. Moi, je crois bien Macky son entourage, il doit aller s'asseoir pour bien réfléchir. D'accord. Donc, vous pensez que tout ce qui se passe actuellement Euh, la responsabilité incombe à l'État du Sénégal. C'est l'injustice. Je n'ai même pas. Il n'y a pas de midi à Nous, on a fait le tour du monde. On sait ce qui se passe dans les pays africains, dans les pays européens, uh-huh. asiens, maghrébins. On sait ce qui se passe là Mais pour le Sénégal, c'est plus pire. on va dire les, les religieux, les marabouts. Les marabouts ont parlé fatigués. Macky Sall est petit. Il ne comprend rien. Il ne voit rien. C'est ça qu'on dit. Tout le monde, beaucoup, tout le monde, par exemple, du moom du dégg du gis du dul masi ko kon yal na yàlla musal man de da démb nelawuma li ma gis muy jëf jigéen soor xale yi ndaw ñi nga xam ne ay quinze ans seize ans ñooñu jox seen bakkan Macky Sall war nañu am ñaari xalaat ne xale yi dafa am lu ñuy nar dafa am lu ñuy décider alors il faut qu'il fasse am na wolof bi wolof bi moo leerul <laughs> D'accord, on comprend. Merci. Merci beaucoup. Merci, on vous remercie infiniment. Que Dieu Merci. Oui, merci Merci, merci, euh, di ko jaajëfal mbokk moom doon woote depuis euh, beneen Cotonou <laughs> euh, dégg ngeen li nga xam ne lu waxee moom nee na olofam moo moo desele Ibrahima Seck yaak Sadio Mansour Gueye Dramé Ibra Yulaay Jeeju Mohamed Gise yaak euh, Mansa Kassi yaak King Boblin ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax fàttewuma euh, ki nga xamante ne moo di Fat Sarr Amine Ndour Ndate Dieng Awa Diatta Thier Diallo euh, ak Touba Teranga parce que Ndoy soxna ko koy yaar ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di xaaju leen raaj 77 810 90 salaamaaleykum waaw mbokk moomu mbokk moom dem na di xaar ba léegi seen réaction ci 77 824 allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ leen def. sëñ bi jaay naa la. delloo ziar fa ñu woowee. maa ngi lay woowee depuis Géejawaay. naka waa Géejawaay. ñëpp a ngi ci jàmm alhamdulilah. mbaa foofu amul ay yëngu-yëngal. non dina tey alhamdulilah quoi calme total. mais démb amoon na. waaw démb amoon na quelque quelque côté ah. Hmm, d' accord d' accord. non non. ayca bisimilah wax man la vraiment je suis jeune quoi. Mm-hmm. je suis né vers deux mille quoi. Mm-hmm. bon li ma gis euh, en tant que président Macky Sall mu war a xoolaat toogaayam. xool entourage am. Uh-huh. que tamit euh, ku ñëpp tudd yaa tooy ah. uh-huh. parce que maa ngi suñu émission bi depuis midi jusqu'à presque deux heures moins. Uh-huh. gisagoo kenn ku woote ne réellement Sonko moo tooñ Sonko moo nekkul si dëgg. ñëpp si kaw mag sàll yi daal te ñëpp amandoo dëgg quoi. parce que ñëpp mën nga nekk ay naafeq dëgg tax ñuy wax quoi. man lu ma jàpp ba jàpp quoi Macky Sall naa kaa faire euh, naa kaa reculer arrière quoi. mu gëm carrément il n'est pas encore trop tard pour mieux faire quoi. Mm-hmm. mu dem si dem bu rafet euh, bàyyi dëkk bi nekk si jàmm. Mm-hmm. te lu ko mooy nag bu forcé wax dëgg fa yàlla liy tooy si moom lay jógee. Mm-hmm. di ñaanal Sénégal ñëpp jàmm quoi. waaw yi jàmm lañu woote quoi. d'accord te Sénégal si jàmm la xaj. d'accord ok merci. merci di ko jaajëfal mbokk moom doon wootee ca géejuwaay di la ne ah, ne jamono ji nag ñëpp ñi nga xamante ne vraiment ñoo ngi àddu ci mbir mi dañoo jàpp ne ñi nga xamante ñoo feree ci nguur gi lépp lu fi amee ñoom la donc ñoom la daal di impute imputer responsabilité bi may jaajëfal bu baax itam eh, ko ci mel ni Zahra. Euh, Zahra Ba Serge John Amin Ndour euh, ak 2BS euh, TV Fatou Sarr Awa Diata Thierno Diallo Mame Mor Thioune vraiment Khadim ñëpp ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk fii nii ci biir réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di xaar keneen ci 77 810 90 90 jamono ji rek image ngeen di gis daanaka sigi coor nag pour vous dire xaw na am un peu problème avec la connexion internet moo taxit image yi nga xamante ne sunu mbokk yi nekk foofu. foofu noonu ñu koy yónnee nag dafa xaw am ay jafe-jafe moo tax it. waaye. maa ngi sant yàlla baax foo ñuy woowee. maa ngi leen di woowee Koumpentoum. Koumpentoum. waaye département de Koumpentoum mbaa lépp ngi dox foofa. waaw fii alhamdulilah. mbaa manifester amu fa. non fii moom ñun ñoo ngi ci jàmm. alhamdulilah. aarikàlla. ban njàng ngay def ci li amee jamono ji ci réew mi. waaw ah, sëñ bi xanaa jaaxle. Ah, xam nga àdduna moom. maanaam réew moom mooy lépp. réew mooy lépp. te pays yi tàkk ci Afrique. lii moo leen di taal. nit ñi dañoo war a dellu seen bopp ci yàlla ñu dellu seen jàmm mm-hmm. euh, gis nga ab réew fitna baaxul mm-hmm. Macky Sall ni mu xam mooy suñu njiit nekk président de la république mm-hmm. dafa war a xam ne réew suñ la ko dénkee yaakaar a tax yaakaar war na ci sàmm ba mu ba mu mooy ne am yërmaande ci askan effectivement yërmaande nit dafa war a ànd ak effectivement mais tey tey jii nii réew mi ni muy doxee nii ñun ñëpp a jaaxle mhm. man mi ngay gis nii naa dund naa ci réewum boo xam ne guerre moo fa nekk muy ñu gis mais tey tey jii nii ñun sénégalais yi ñaanuñu yàlla ñu toll foofu. Mhm. mais nag réew mi nu muy doxee ñu tàng gasal. Mhm. parce que bu njëkk ba jeunes yi ñemewuñu mais léegi insinué kenn ragalutul homme de tenue. Mhm. te homme de tenue am na nu muy demee maanaam reyante suñu biir rafetul. te bakkan bu wax bu bari na rek ci biir Sénégal dëgg fa yàlla te loolu ñaaw na trop ñaaw na trop ci réew mbirum koo xam ne muy Adji Sarr Sonko foog naa ne mbir la boo xam ne warul jar sax réew bi maam ginaar bi ci jeex tee surtout doomu aadama man ci sama xalaat kenn ku nekk nag sa xalaat nga yor kon nag war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax su baax suñu leeree ne lii moom fu ñuy yóbbu gënul ci réew mi gënul ci jeunesse gën gënul ci maanaam suñu économie kon président war na xalaat bu baax a baax mu dellu ginnaaw parce que tey tey jii ne li mu bëgg a régler su bëggee liy jeex day jeex su bëggul mu jeex du jeex parce que mhm. moom moo yor constitution am na solo am na solo donc euh, lii moom doy na waar trop trop te tiit nañ ñun en tant que des am nañ tiitaange. Mhm. Macky bonul de mais son entourage war na koo xoolaat bu baax a baax parce que ñun ñu man de personnellement bokk naa ci ñoo xam ne dañ koo xeexal ba mu toll. parce que man exporté naa ko de Tambacounda jusqu'à Maka Kolobantan je me suis battu en deux mille onze deux mille dix deux mille onze mais jamono yooyu moom ainsi ni opposant Sénégal lu ñu dund su fekkoon ne moom loolu la doon dund kon du egg fu mu egg ni kon war dawal yërmaande xam ne ñun dañoo amoon yaakaar yaakaar boobu tamit mu fexe mu bañ a fas man loolu laa am di ko di ko jaajëfal bu baax a baax moom mbokk ah, ki doon laajte Adji Sarr ndax mën na koo takkam déet Adji Sarr a ngoog de li mu wax naan Adji Sarr taaru mel na ne nag vraiment ah dafa mel ni bi la daal di gis di xaar ko leen ci 77 810 10 90 salaamaaleykum aleykum salaam ñu ngi leen di ziar. sëñ lépp jàmm. foo ñu woowee. parcelle. noonu amul ay jàppante jamono ji may wax yow. non moment bi moom daal na ko. dalagoon na quoi. ah ndax parcelle moom euh, foofu foofu saa suñu nee manifestation rek suñu xel dafay daal di dem ndax euh, vraiment ndaw ya fa nekk jox nañ bopp loolu Ousmane Sonko. waaw mais léegi mais léegi problème yi ñàkk fay yi tax moo ko fi jaar. lan moo ko fi jaar. amul ay ay tuuma xam kenn xam am naa amut. xamoo yàlla rek xam. ku maanaam nga bëgg see nekk si yàq am réew. da nga nga ne yow Sénégal ñor na la ko. Uhuh. ba moo doon wax ba mu ne sax Macky ba fa nii. n'est-ce pas problème bu amee mu leer bu ñu ko laalee procureur day wax ak ministre de la justice n'est-ce pas maa ngi saa vidéo bi léegi nii uh-huh. boo ko laalee réew mi daal kon na war a def ay uh-huh. ñoom seen bakkan mooy gësuñ moo gësuñ bakkan wala seen alal ak gësuñ alal ah doy na waar bu dul ñun duñu am xa bu dul ñun ñoom duñ fayeeku duñ liggéey mais liñ téye ba ñëw yàq yàq Sénégal affaire mooy lan Uh-huh. da ngay nekk si liggéey say famille nekk si àll di la woo naan la baa demoo baa demoo baa demoo pap parce que fa nooy liggéey wala ñu war a laaj a am loo joxe. nañ uh-huh. Sénégal mooy jël lépp dund yëpp yokk ko làq dem dóor doom. Uh-huh. ah pour lan wallaahi si daanaka canaak ma gënal Macky Sall am jàmm. nañu defal jàmm. jàpp bu ko neexee si moom lay moom moom Macky Sall moom mu am. mais lii ñuy def yi Sénégal ban Sénégal la nekk. ndey la waay ñun Gambie sax ñu dàqali dëkk. <laughs> non billaay ku yóbbu wuti nationalité Gambie ku yóbbu wuti nationalité Gambie jàpp sa bopp. Mhm. mais tegul fenn fenn la tegul fenn. ndeysaan. am ndox ci dem nag. wallaahi ngóor si man ma yóbbaale ngóor si rek ngóor si bopp. dañ nga bàyyi rek. parce que ñu ngi ñu ngay dem. élection peut-être deuxième tour laa woote noonu mais ëllëgati moom moom moom ma daal moom. Mhm. foofu kan moo fi nekk mais ëllëg jërul moom mhm. mhm. ko bàyyi doon. Euh, doon euh, joxe xalaatam ci euh, tolluwaayu réew mi ah, di xaar yeneen réaction ci 77 810 90 90 vraiment am na ko lay message naan ma Adji Sarr neexut a bañ. asalaamaaleykum ah, loolu moom bu ma ko wax. <laughs> salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi na ngeen def. maa ngi leen sant mbaa yéen ngi si jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax. yaatal gi yaatal mbir mi ba ñëpp dañ mën a jot. Mhm. di mën a xam information yi fu mu toll. Mhm. ñoo ngi rafetlu loolu bu baax. merci man nag man amoon xalaat boo xam ni su ma sañoon dina yaatu lool. Uh-huh. ñoo ngi ñaan jàmm ci réew mi. Uh-huh. Macky mi nga xam ne moom nuru na ne mu ëpp doole ci mboole ñu ngi ko seqal. Uh-huh. doole yooyu nga xam ne gis day ñëw. daf koy ñàkkaat te loolu sooreetu dara. kon na dawal yërmaane ci moom. ndax mu dugg rafet moo ëpp solo lépp. ca àdduna jaru ko. même bu Ousmane Sonko tooñoon bu ñëpp xam ne daa tooñ waaye xam nañu bu ko tegee ci yoon dëgg. Mhm. ay bakkan ci lu bari yàq ci réew mi. Mhm. loolu war naa tax mu dëgg ci tànkam. Mhm. loolu daal laa amoon lu may wax. d'accord merci. jërëjëf ok merci merci. merci euh, di ko di ko jaajëfal vraiment ah, di ko di ko jaajëfal kàddu yi mu yëkkati am na solo de xaaj yi may bàyyi suñu ci 77 810 90 90 ñëpp ñi nga xamante ne bëgg nañ àddu ci mbir mi rek bëgg mën nañ woote ci numéro boobu salaamaaleykum. sëñ bi na ngeen def. kilifa gi maa. doo delloo ziar bu wér naka activité yi. di rafetlu sëñ bi ñu ngi quoi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. waaw Abdoulaye soo ñu woowee. maa ngi Ravan Louga. Ravan Louga. naka waa Louga. sant kay Baara mhm. ñaawlu lii quoi affaire ñaaw trop. Mhm. waaw di nuyu waa Sadio mhm. li moom métti na képp ku nekk julli réew na la quoi. waaw maa ngi rafetlu maa ngi rafetlu di wax ne yéen leen a joxe information yi état yi mhm. nee na yéen di xool li ngeen di joxe quoi mhm. waaw du du ko du ko teg ci yoon ndax mu mhm. ngi dégg dégg dëgg lu neex wut wax lu dëgg yàlla métti lu ma di defet dee si si ni maali frère nii rek te ñoom ñëpp ay père famille lañ genn wàll gi ñenn ñay sal bi teg leen métti na daal bàyyi. billaahi. man ma ni sa voilà maa ngi fi Daara Jolof. d' accord man koy métti mu foofu métti la yem billaahi walaay taay. naara. Mhm. Mhm. affaire na ma xam nga tur dara dafa yéeme. billaahi. man dama abonné si sa kii bi. d' accord instant yii nii fekk si moom laay seetaan. am na solo yaa ma wuti téléphone connexion ma ngi kontaan yow baax la ma ngi lay bàyyi. merci merci waaw defal la jàmm nag mu ngi def erreur <laughs> waaw ndax mu ngi génn arme arme blanche bi génn démb ñu guddi. Mhm. Eh, boo yor ay coppar molotov yow yow loolu danger la mooy mën la ko sànnee yàq xale yi jigéen yi erreur day gën a am rek. Mhm. xam nga même bu la la état bi tabaxaloon tabaxaloon pale ba du yoon ngay toog di génn arme. Mhm. waaw. maa ngi gis booy wër ko si kër gi nii sar démb si guddi ay deux heures du matin affaire yooyu affaire lu loolu lépp la quoi bilaay Bas Ndao nu mu appliqué woon mu defoon ko saa yi fii ñëw double defaat kenn dana ñëw double waat mhm. mais sa waay Sénégal ko waruñu ko àgg nag mhm. ah? Mhm. ah man de ñaar mooy ak sama bopp ëllëg bu doxalee nii nag <laughs> d'accord merci waaw merci waay kontaan merci yàlla jaajëfal ñu nuyu waa Louga vraiment ñoo ngi koy jaajëfal di jaajëfal itam Baspo TV Alex Steinmauer Mansa Kassi Ahmed Seck ah, Mori euh, Mori Tourard Dame Seck Vicente yow ba ci euh, Def United Def United vraiment ñu ngi jégalu aussi ça il faut qu'on précise jamono ji nag connexion internet bi dafa xaw a am quelques soucis ndax bu leen fàttali euh, jamono ji ñun ñii nga xamante ne ñooy nekkee ci wàllum internet bi vraiment nag dafa am début de connexion bi nga xamante ne dañ koy xaw a limité euh, ci euh, vidéo yi donc c' est un peu difficile euh, ligne whatsapp bi di dox donc ci ay ci ay manifesté yu mel nii ligne whatsapp bi dañ koy xaw a dañ koy xaw a bloqué nag vraiment ñoo ngi jégalu pour ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy woowee bitim réew wala waa bëgg sax participer ci waxtaan bi jaaree ci ligne whatsapp bi vraiment on est désolé so loolu def ci appel normal itam moo ñuy moo ñuy daal di gën a salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi leen def foo ñuy woowee waaw man maa ngi woo ko zone Tamba waa Tamba alhamdulilah. mbaa foofu jotul am ay manifesté. non non y' a rien ici. d'accord waaw ma ni. Mhm. bu fekkee mën naa bàyyi moo en toute transparence en toute liberté. sans que du ma kenn. Ah, fii de wax dëgg yàlla wax sa xalaat la ñuy wax ku ci nekk moom xalaat boo mën a. non euh, nga ko mën nga ko dama la bëgg a te teel a rek pour wax la ni man nit liberté la. Mhm. donc euh, li ma xalaat lay wax. Mhm. xam defaa dafa yenn presse dañuy commencé wax rek ñu commencé di la di la indi la euh, maanaam di jéem a baral. allo allo. allo oui si man li ma bëgg c'est très simple. waaw. Euh, gis nga Sénégal. Uh-huh. da ngay xool histoire am ak réew yi mu nekkal dans le continent africain. et uh-huh. partout et dans le monde entier. amul benn justice bu parfait. da nga may dégg baax. ñoo ngi dégg bu baax sëñ bi. amul benn justice bu parfait. benn justice bu parfait ci àdduna amul. yaakaar naa fe ak Norvège ak Suède. foofu sax la justice n'est pas parfaite. te ñoo justice gën ci àdduna bi. xam nga Sénégal ñu ngi doon nekk ci réew mi rek di wax. réew mu ba tey wax lañu ñu ñàkk fonk état lañu ñu ñàkk fonk loi lañu. te xamuñu dara. li may wax di xam naa ko baax parce que ñun bokk nañ les premiers mélomanes yi xam dans les années soixante dix xam ba léegi ñuy gis nit ñi. Mhm. dof yi sol bari ñoo fi bëri. d'accord nga baal ma si wax ji. d'accord donc li ma boo il wax ko pour pour ñëpp dégg. Mhm. bu fekkee li may wax message la boo xam ne nit ñi dégg nañ dégg li ma wax lii du saaga. Mhm. ay fee la Sénégalais yi nangu wuti xam-xam. jéemul xam luy état. jéemul xam luy justice. mais bu leen tooñee pare nañ pour dem porter plainte mais bu ñu tooñee pare nañ pour sob c'est ça la vérité loolu suñu habitude la. ba pare bu nit nit ku ñu tooñ daa non ba non garaawul ba yàlla baax na euh, ndogal la rek dugg na ci génn fi. da wax ni. fokk ñu bàyyi magistrat def seen liggéey magistrat yi magistrat sénégalais lañu si kër lañ génnee. xam-xam lañu am comme yéen journalistes yi ni ngeen bañee ñu yàq seen liggéey. ah ñoom ñoo war a bàyyi magistrat aussi. Uh-huh. police liggéeyam daf koy def. Uh-huh. Ousmane ko ba muy wax amul ma ko benn haine. Uh-huh. benn contre am ma ko. mais Ousmane Sonko dafa wérul feebar bu ñuy wax feebar Alzheimer li jaral Jacques Jacques Chirac moo ko dal Jacques Chirac mi ngi koy dal il a soixante douze ans Ousmane bu Ousmane Sonko à quarante six ans déjà am Alzheimer day naax dégg nga wax ji. la preuve bu wax 52 ak 33 ak 33 avril dégg nga yaa ngi dégg. Uh-huh. sëñ parce que li may wax ni par rapport ak yenn Sénégal yi ñuy waxee du benn. Uh-huh. kon moo tax sama communication lu jar a déglu la parce que ñun ay observation yi leer la ñuy def. Uh-huh. dégg nga waa ji daa feebar parce que lépp mu wax tey mën na ko weddi suba. loolu feebar la ñu bari xamuñu ko. te li ma wax l'histoire ma me donner raison. dégg nga Ousmane ko xam na li muy def li muy def xam na ko baax a baax a baax. ku génn sa kër ay presque ay presque ay vingt et une heures. nga dem wuti xale bu jigéen da nga doon marché marché woo en tout cas le fait que la fille a plaint plainte déjà le coup est, fatal dégg nga mais dem di laq si gannaaw population di di di wote ay insurrection loolu Sénégal rek la am. moo tax man la soo gisee man la Sénégal di réew la si àdduna bi réew la si continent africain uh-huh. wallahi sénégalais liberté bi ñu am ak uh-huh. démocratie bi ñu am amul fenn si àdduna bi uh-huh. fii rek nga mën a taxaw saaga président Ndeye xoolal te dara du fii rek nga a taxaw saaga président Ndeye Macky Sall ñaata yoon ñoo koy saaga malgré man Macky Sall ànd ak moom parce que fi ñu ko doon xaaree génnu fa mais àdduna moo doxee noonu tout rien n'est parfait rien n'est parfait Ousmane Sonko bu fi toogoon ce sera plus pur encore parce que moom wax rek la fi indi pour l'instant dégg nga ba pare xanaa di génnee xale di di di détruire détruire xale yi c'est ça la vérité ngir yàlla yéen tamit li may wax bu fekkee ku ku may déglu bul faral nit ki parce que dangaa faral nit ki ay nangam ba Sénégalais nag affaire sot yooyu ñu ko arrêté mais bàyyi justice def seen liggéey. d'accord te fii leen lay wax ak lu mu yàgg yàgg état Sénégal du mu allo. waaw soo mënee am na am na am na question boo xam ne jot naa ko. ñu naan euh, euh, ci ñi nga xamante ne sànq yaa ngi naan nañu bàyyi euh, magistrat yi def seen liggéey maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy yor wàllum yoonal su nekkee ne doxalin yi nga xamante ne moom la ñuy amee ci yenn dossier dañoo jàpp ne dafa daal di jeng ndax du yoon itam nit ki utiliser moyen qu'il faut pour combattre cette injustice. waaw mais cette injustice ça commence par nos propres maisons ces magistrats là ils da nga lay mën a compter policiers dëng da nga lay mën a compter. mais journaliste bu dëng Seydou euh, Sène ah. bu dëng. Ah. wala policier bu dëng du moom mooy àtte ah. nit maanaam ki nga xamante ne dañ ko euh, ëllëgu nit wala ëllëgu réew sax dafa wékkoog say loxo ndax itam sooy àtte waroo àtte ak sa àqulaay taala ak li nga xamante ne moom nga. waaw mais mais euh, naa la bu baax de mais gis nga pour ma leeral la. Mhm. est que si sénégal su ne pas prêts à changer leur comportement. Mhm. kon ni ku nekk fu lay recruter jikko jëñ nga yóbbaale mais c'est la vraie c'est la vérité. Uh-huh. nit ñi ils sont pas prêts à changer le comportement. Uh-huh. on est tous chrétiens ñun ñëpp ñun ñëpp ay ay ay fesa fesa semblant lañu. d'accord yow xam nga baax ni may wax. yaa tax moo tax yaa ngi rafetal mais xam nga boo génnee sa studio xam nga baax ni ma wax. Ah, Sénégal yi dañ ngay dajee si mbedd bi man kay <laughs> bu xam nga baax ni ma wax. <laughs> benn jikko ji da ngay fekk sa koñ moom ngay fekk sa kër moom ngay fekk si dëkk bi ñun ñëpp ay tàppale lañ su ma nee ñun ñëpp rek ça veut pas dire tout mais je sais que quatre-vingts pour cent des ay tàppale lañ dégg nga wax ji. d'accord merci bu leen bu leen c'est bon bu leen arrangé wul na xëpp si suuf c'est ça la vérité. d'accord merci. waaw donc problème du problème Macky problème bi société la. Mm-hmm. société bi seen bopp ñoo dëng jublu te jublu dëgg-dëgg. ba pare di mu bu lislaam foofu rek la yem merci beaucoup. jaajëf jaajëf. di ko di ko sant mbokk moom doon wootee ca boor yi Tambacounda ah, moom itam doota def gis-gis ah, ci ah, li nga xamante ni moo xew ci réew mi di xarandi keneen ci 77 810 90 90 may nuyu dabax kay def United def United maa ngi jégalu maa ngi jégalu vraiment gis naa ne yaa ngi bëgg a insister mais ligne WhatsApp bi yaa yaa quand même un petit un petit problème la connexion internet ça aussi il faut que ñu wax ko pour ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi seetaan pour vous dire que ji on travaille dans conditions assez difficiles depuis keroog man koy wax ca marché yi jamono euh, jamono euh, marché F24 euh, régi nga moom a tuuti kooku nga nga may ko mu patienté parce que il faut na expliquer ñi nga xamante ñoo ñu seetaan li waxal tey ñu suspendre ligne WhatsApp bi mooy problème connexion internet lañu am ndax ci jamono ji ñu toll ak euh, image nga xamante nañu wane ñu ci bari dañoo jàpp ne euh, lii warul jàll donc euh, connexion internet bi début bi dañ ko wàññi donc on aussi des difficultés à retransmettre en direct li moo tax ligne WhatsApp bi dañ ko daal di suspendre pour le moment di jégalu ci ñëpp ñi nga xamante ne vraiment ci lañ daan tàmm di wootee ngir rek dugg ci waxtaan wala joxe ci seen xalaat su nekkee mën ngeen woote en appel ko def jégalu itam ci ñi nga xam ne bitim réew te amoon habitude di ñëw ci euh, numéro boobu salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi na ngeen def. ñu ngi ziar. Euh, foo ñu woowee. Euh, Bamako Mali. naka waa Bamako. ñu waa lépp a ngi dox foofa. waaw boobu macha allah ndax bëri ay mag yu fekk nga jégal ma ci kàddu gi. ah sëñ bi tamit vraiment. Euh, ah ah non non non tamit tamit xam nga yéen yéen vraiment yéen samay xarit ngeen quoi mbokki internet man képp koo xamante ne vraiment yaa ngi woon ci émission bi dama lay dama lay bëgg a jàpp ndax vraiment nga nit si la loolu rek rek neex na tamit euh, ngeen di ku ci nekk ak euh, na nga gisee na nga gisee situation waaye tamit kàddu yi ngeen ngeen ngeen ngeen koy ngeen koy wallaay voilà ngeen koy lewetal jéem nañ ko wootu bu baax a baax moo tax ñu utiliser moo bi nga yàlla moo ko njëkk a utiliser alxuraan <laughs> waaw vraiment man moom su ma semaine vraiment kàddu yi daal ngeen koy gën di gën di lew daal. maanaam dina dina dina joxe le maximum incha allahu taala. d'accord acca bismillah. waaw euh, xam nga ñun nag boo gisee ñuy insister pour dugg wallaahi dama gën a dugg ñaareel na cee a xaaral ma bàyyi. Mhm. dëgg ndax booy dëgg dafa da nga ciy amee da nga ciy jëlee yu am solo. Mhm. waaye da ngay dégg léeg-léeg intervention yoo xamante ne nii sa xol dootul la may pour nga bañ a dugg pour wax li nekk Euh, moment moment bi toll dañoo toll si moment wu communication la ñu toll mais a dafa avancé. Mhm. moo tax booy wax rek bàyyi waaleel xel ñi nga xamante ne nii ñu ngi lay déglu te amuñu accès waxee comme ni ngay waxee. Mhm. Euh, moo tax wax dafa xaw a jafe. jaajëf. Mhm. Euh, Seydina Omar Ibnu Xataab da doon wax naa nit doo làmme sa làmmeñ boo xëyee war nga koy yar balaa ngaa wax benn war nga koy yëngal juróom-ñaari yoon ndax li ko waral mooy bu génnee moo doo ko te euh, ñun dañuy wax naan jeunesse dañoo dañoo am wallahi wal quran azim ñun ñun mhm. man mi di wax ak aw mhm. mais ñu ne naa waaj yi may yor mhm. ci sama bopp ak sama am na koo xam ne am na si ah, am cinquante ans la ko yenu lii suñ différence ñun ak ñu mooy ñoom da nga doon gis ku dem ba am soxna sa papa yor la yaa sa soxna ñun léegi da fexe yor sa yor sa famille avant nga yor sa soxna Uh-huh. léegi nag génération yi boo leen bëgg a du nekk benn. Uh-huh. Uh, à l'époque bu fekkoon ne xale dama wax ci politique dañ naan xale dafa dooj wala mag ñi sax dañ naan kii dafa dof. Uh-huh. dañoo jàppale loolu waxu mag la ñun nag léegi dañoo xam suñu destin téye ko à mai. gis nga Adji Sarr citoyen Sénégal la. Ousmane Sonko citoyen Sénégal la. wallahi bu fekkoon ne Ousmane Sonko Adji Sarr dañoo am problème ñu teg ko ci yoon dem ñu wóor ñu ne ci yoon lañ koy teg àtte. man Ibrahima man duma ma lakk sama kër di ci woote du ma wax kenn ko wàccal du ma wàcc si mbedd ni ma di fete hmm. mais daf ma wóor wóor yàlla na xam nga am na ku wax sànq ne benn fiif partewul waaye benn ñàkkul benn ñàkkul parte ba mel ni bu Sénégal ci suuf Sénégal benn la ci kaw suuf. ah dégg waay. <laughs> maa ko wallaahi wal quraan. moonte de moonte de moonte ma nga may ma euh, ci ma intervenir moonte euh, am na ay magistrats yu jub xamante ne ñoo ngi def seen liggéey na mu waree am ñi nga xamante ne itam danañ seen aqulaay taala am na ñi nga xamante ne moom lépp lu mën a def ci àdduna dañ koy sóor te ñoo ngi ci euh, wàllum justice vraiment <laughs> loolu itam. yàlla yàlla wax na ci alquran allatina wasalaatuhum xaasa'un est-ce que ñëpp la. Ah, déedéet moom loolu moom am na. Ah, moo tax moo tax ñun bu ñuy wax généralement c'est pas pour ñuy daal taxu ñuy wax nga man su may su may wax di hmm. li nga xamante moo gën a jege. su ma ne foofu hmm. Sénégal si si bu ko gën a bon a bon. effectivement hmm. na ñoo xam ne su ma fekkoon Sénégal tey. mais xam nga am na ñoo xam ne yow gaaw gis seen bopp moo tax. voilà. léegi nag am na ñoo xamante nag. dañoo mel ni ñu préféré mel ni man. Mhm. lu ñu leen digal ñu def lu ñu leen tere ñu bàyyi. Mhm. même bu ñu leen digalee lu wuuteeg loo xamante moom lañ jàngoon sa test dañ koy def ñun nag ñoo bëri fii léegi. Mhm. gis nga amul benn réew booy dem nit def benn bi ñun ñaar ñu bokk def benn acte bi lu mel ni xew Sénégal dafa xewaat amul man Mali ma nekk. ma wax la exemple wallaahi wa li ma wax bu fekkee ay fen la yàlla bu ma jant bi sox. dëgg la dëgg man toog naa fi daje police guddi di wàcc am na sama frère. daf fi ñëw yàgg amul amagul compte Uh-huh. police yi jàpp ñu laaj ñu ku nekk cinq mille ku nekk dix mille ma ne ko yoruma ko ma war ko sama bopp mu ne ma dafa jeex mais xam naa ne dëkk bi nekk lu mu métti métti métti police yi jox leen respect nit ñi en même si justice bi dina dina xaw a yemale Sénégal ak euh, nit ñi uh-huh. dama jël numéro na ko jox ma ma envoyé ko ma envoyé ko uh-huh. xaalis bi récupéré numéro am téye ko moom moo nekkoon chef bi jiite woon opération guddi gi ma doon xëy suba teel woo ko téléphone ne ko dama doon sama considère nga ne jeex na sama considère jeexagul léegi nag envoyé naa la dix mille li tax ma envoyé ko yow naa xaalis liggéey mais uh-huh. nga liggéey dem <laughs> léegi nag li ma sama dix mille na delloo ma ko par A ou par B ou bien ma yóbbu la police léegi léegi ñu yéeg wàcc ñu ñu tëj la nga yàq xam ne ne buñ demee foofu du wax. mais bu doon Sénégalais police Sénégal moo da lay saaga ndey man Sénégal police saaga na ma ko ndey fii demee noonu. te su ma fay woon wóor na ma dañuy ànd dem police ñu téye ma est-ce que loolu mooy justice est-ce que loolu mooy jubal kii fii dëkk na fi aw ma fi aw ma fi carte d'identité consulaire dong laa fi am mais ba mu xamee ne buy jëmee photo yu baax daf ma delloo sama xaalis ndànk woo ma ne ma sama frère sax dimbale ma nga teg ko ci suuf ma ne ko aw ma benn intérêt yàqal sa liggéey mais dama bëgg ngay jubal bàyyil koo guddi ko jëm a arnaque. <laughs> loolu boo ko doon police Sénégal tey bu demee doo wax. <laughs> Uh-huh. moo tax may wax ne sif sif bu gën a bon bu Sénégal amul moo tax nag ñun nekkuñu ay dof du ñàkkee teggin benn mag waaye wallaay kuy wax xamal tëddal sa biir bàmmeel nga xam ne. Uh-huh. bés xam ne yow kese ak sa biir bàmmeel. Uh-huh. dina nga gën a sa loxo ndeyjoor di nga wéete sa borom ba mel ne yow dong la sa am na solo la fekk Ousmane Sonko na solo am na solo. yow bés boobu yàlla mu naa mu ngi koy naatam ci alxuraan naan yow moom bu yóbbu loolu noonu. Uh-huh. doom du fa jëriñ ba alal du fa jëriñ. mënoo mhm. ko dikkee yàlla ak xol bu sell yàlla yu bëri ci alxuraan lu jar a ragal la bu dee ab jullit nga bu dee yéeféer ngeen xam nga ni nga dee ndax boo la koo laaj fii kenn doxut ba jàppal du dee mhm. koo ci laaj mën na sama maam dee wala sama papa dee kon xam nga yaa ciy topp naka nga rek ñun Sénégal bu bu bu yàqoo amalu ñu benn njëriñ man mi di wax ak yow Sénégal bu lakkee man njëriñ la ma amal. ah vraiment man lu ma for lu ma for lu ma yónnee Sénégal laa ko kenn du ma kii dara bu ma xam ne mu néew la Sénégal laa koy yónnee yor fa sama soxna yor fa sama papa yor fa sama yaay ñu gën a war a am ci àdduna. Mhm. mais kon est ce que est ce que man am naa lakk. mais boo gisee dëkk xeexoo ko nag fu ñu jëm mooy fi jëm Sénégal lakk moo koy gën boo demee ba nekk doomu aadama amatoo benn droit sa bopp mais est ce que jar na muy dund. ah benn waat de. waaw ñun loolu moo tax ñuy wax mais waxuñu ngir dañoo faral diw wala faruñ diw dëgg la gaa ñaari ginnaaw bu ñuy xeex dina am boo si faral mais ñun dañoo xam ne lii du dëgg. Uh-huh. te day indi renseigné ba man dama gis ay nit bu président ñu ne uh-huh. dañoo bon mais dafa am benn heure du na ñun ñu ay on ay éliminé. Uh-huh. parce que xam nga man li ñu waxee tey su ma yor sama oto di daw guddi dañoo polise mu arrêté ma du ma taxaw ndax jàppee naa ne sax dama éliminé ba pare. wóorul du ma leen si kaw suuf. kan moo ma teg loolu sama état bu bon. d' accord moo tax nit. merci da ngay bàyyi xel sa njaboot. merci njaboot bu dina jur kese. bu mhm. ñu ne baax na ñu ne du daa baax njabootam ki mu jur mais mbaaxam mhm. des na. Mhm. diw bi ne xam xam-xamam des na. d' accord. kon lépp dañ ko war a teg si yoon. merci merci beaucoup di ñaan yàlla na ko yàlla def jaamu. merci kaddu yi rafet na ñu ngi leen di seen liggéey yal na yàlla taxawu leen. amiin amiin amiin merci. waaw yombul nag ndax di ngeen accueillir <laughs> sama classe yi nga bëri fit na <laughs> yi rafet na vraiment vraiment. <laughs> jaajëf jëf vraiment kàddu yi rafet na trop ñoo ngi koy ñoo ngi koy jaajëfal euh, wax yu wax yu am solo rek la ñuy la ñuy bëgg a dégg vraiment euh, xalaat bi mën nañu wutee ku ci nekk ak na ngay gisee mbir mi mais vraiment na kàddu yu rafet rek loolu am solo ndax euh, kàddu yu rafet ak gis-gis bu dëggu mooy mooy mooy mooy jëmal réew kanam di xaar yeneen réaction ci 77 810 90 90 da baax gay maa ngi lay jaajëfal ak Astou Gaye ak moom père Massa Amadou Diallo Salif Ba Ah, Vicente sama xarit maa ngi lay maa ngi lay jaajëfal salaamaaleykum. salaam wa rahmatulah. sëñ bi na ngeen def. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. Eh, foo ñuy woowee. maa activité yi. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah. ak eh, ci bismillah ci waxtaan wi. dama bëggoon a apporter point de. Mhm. ci li nga xam ne mooy xew. xam ne li fi xew ñu ñëpp la concerné mhm. ndax ñu ñëpp ñoo xëy ci xew ko ci réew mi di seetal mhm. dafa bind doomu aadama def ko mu doon ku matati mhm. waaye it am yëppande boo xam ne dafa laaj jëmale ko ci doomu aadama fii ku waxul dëgg rek wax leneen